Voilà, merci donc la régie. Euh, rebonsoir chers amis téléspectateurs, bienvenue encore sur la TMS TV en direct ici au domicile du grand marabout El Hadj Thierno Mouleye Sow. Je le disais tout à l'heure, c'est lui-là euh, qu'un certain intellectuel avait cité comme une référence mu ne le phénomène universel. ñu ñëw nag ci émission bu mag bi émission bu mag bi nag bu ñu ko waxee mooy li ci jinne li ci jënd nag defe naa ne mooy émission bi nga xam ne ni internet yeeg téléspectateurs yi moom vraiment dañ ko bëgg parce que sëriñ bi daf fay def ay révélation di fa def ay révélation euh, maanaam di retracer lu bare bari bari bari bari bari ci li mu dund ci métier bi ak li muy dund pour bi muy sàkku xam-xam ak fi mu jaar yëpp sëriñ bi daf koy euh, retracer ci li ci jëndee mais euh, damay bàyyi rek mu nuyoo. ba pare nag ñu ñëw maintenant sur le premier sujet euh, de de de cette émission sëriñ bi ñu ngi lay dalalaat ci ci TMS TV ci émission li ci jinne nga nuyoog téléspectateurs yi. alhamdulilahi rabbil alamin auzu billahi mina shaytaani rajim wala xawla wala xuwata illa billahi azim gannaaw ba ñu sante yàlla ñoo ngi julli ci yoonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu mbokk jullit yi di nuyu mbokku taalibe yëpp macha allah di nuy ñi nga xamante ne ñoo nekk ci plateau yi doyen ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu soxna Ngone Dia macha allah di nuyu soxna Oumy di nuyu ajaratu Bella di nuyu ñëpp macha allah di nuyu ñi nga xamante ne ñoo fi ne ku mel ni Yatma Moule chef de sécurité di nuyu macha allah champion grand macha allah Serigne di nuyu Amadou di nuyu Alseni Silla di nuyu Kara di nuyu. équipe bi yëpp ñoom papak macha allah ñoom Ali bu ñu limee dañuy juum macha allah di kontaan bu baax ci émission bu mag bi nga xamante ne mooy li ci jinne saa yu aljuma jotee gars yi yàkkamti ko seetaan macha allah ndax émission bi nga xamante ne dañ ciy jàngale lu am solo vraiment di kontaan bu baax ci plateau bi di nuyu ñëpp di sant yàlla bu baax a baax di laa la ma dam Sow ak prince ak ajaratu Mariama Kamara di nuyu suma goro yi di nuyu ñi ñuy ñëpp doyen macha allah. waaw mbokku téléspectateurs ñu ngi leen di nuyuwaat yéen ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ci saa su ne di leen fàttali ne ñu ngi ci émission bu mag bi nga xam ne mooy li ci jinne di waat kilifa gi le roi médecine traditionnelle du monde di la nuyu doyen maman Bella ak ñi fi xam ne ñoo fi toog ñëpp ak euh, Oumy Ndoye suñu président Alseni ak ñi nekk ci régie bi yëpp ak garde rapproché nuyu naa ñëpp. jërëjëf Oumy Ndoye journaliste bu mag bi bind livre bi bi ñu ngi yi. maa ngi lay euh, nuyu di. la sant di la gërëm waaye di beral nuyoo sunu sëriñ na mu Moule Sow di ko ñaanal euh, gudd fan ak wér Seydi Sow di ko wax rek ñàkk koo xam wóorul maa ngi leen di nuyu euh, yéen ñëpp ngoonee maa ngi lay nuyu. Mm-hmm. maman Bella maa ngi lay nuyu yow tamit di nuyu sécurité yi di nuyu képp koo xam ne rek moo ngi fii jàpp ci liggéey bi di nuyu sunu président al Alseyni Silla di kontaan lool nag dalal bi ngeen ma dalal fii ci TMS TV sëñ bi jërëjëf. jëf <laughs> nga nuyoo téléspectateurs yi. maa ngi euh, le personnel de TMS TV Thierno Moule Sow. Mhm. roi mhm. ah, di nuyu yëpp daal fi nekk nii moom macha allah sant yàlla rek moom comme nuy internautes yi di ma wax ne euh, Thierno moom mooy nga xam ne doo am looy wax doo am wakkatukaay. Mhm. nga nga am nga am ay wee hmm. di wut wokkatukaay abal ma lii ma wokkoo te nga am te nga am loo loo xasanoo waaw peda ngaa ñoroo très bien loolu la <laughs> ku baal merci beaucoup waaw donc loolu la euh, sëriñ bi euh, d'abord bala ñuy ñëw ci question yi euh, dafa am loo xam ne nii actualité àddina bi dugg dund ko Afrique dund ko rawatina nag un pays frère un pays ami muy la Guinée coup d'état am fa ah, le président Alpha Condé ñu daaneel ko Euh, ki ko daaneel mooy le dumbu Doumbouya d' abord yow nga suivre actualité bi d' dañ bëggoon xam yow sa réaction par rapport ak coup d' état boobu nga xam ne am na Guinée. waaw macha allah alhamdulilah rabbil alamin euh, doyen Abdou Aziz macha allah ñu ngi nuyu waa suñu mbokk waa gine ñu ngi leen di nuyu bu baax Guinée Conakry di nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm xewal saa su dama leen di ñaanal jàmm bu baax. defe naa barki Dembo Ndiaye fii wax naa ci Alpha Condé bi nga xamante ne vraiment dictateur la. nit la ki nga xamante ne buggul réewam buggul askanam mhm. vraiment macha allah bu gis ngeen élection yëpp nu mu ko def daf ko foqati vraiment barki Dembo Ndiaye fii maa ngi koy ñaanal lu bon di pour yàlla alak ko defe naa ne voilà le le preuve parce que dafa not guinéen yi vraiment ni ñoo ngi koy nuyu bu baax moo ngi toog fii nii dafa not guinéen yi borom alal yëpp daw nañ borom xam-xam yëpp daw nañ day rayee day sonalaate vraiment ñetti mandat yëpp daf ko foqati gañewu ko. te deux euh, maanaam deuxième mandat la ñu waxoon ci lay yem mu mu forcé def troisième mandat néewal doole Cellou Dalein maanaam moom daal dafa jàppee Cellou Dalein euh, beñee la ko jàppee maanaam Cellou bu gañee rek mu mu mu mu def ko nii néewal ko doole waaye yàllaa ko ëpp doole ki nga xamante ne moom la formé muy Dumbuya gis nga lu mu ko def euh, lii nag contenté la ci ñëpp parce que tamit Guinéens yi suñu mbokk lañu vraiment bu seen bët xonkee fii la ñuy daw ñëw kon euh, lii nii lu rafet la bu ko defee ñu xoolaat dëkk bi mën a organiser waat élection yi vraiment pour mu Guinée mën a am jàmm parce que Guinée bu amee jàmm ñu am jàmm su amul jàmm du ñu am jàmm ndax suñu mbokk Guinée yëpp dañuy daw ñëw fii parce que amuñu jàmm seen réew kon nag Alpha konde defe naa ne euh, yàllaa ko ëpp doole maanaam lii xamoon nañ ne dana ko dal ndax nag barki Dembo Ndiaye gis ngeen ñaan yi ma ko ñaanal vraiment euh, di noot sa sa sa waa réew loolu vraiment loolu rafetul daal vraiment macha allah dëgg la sëriñ bi wax nga dëgg euh, vraiment Sénégal gine benn la parce que nag euh, luy yëngatu Sénégal il faut mu intéresser ñu moo tax ñu ubbee ko d'ailleurs sax euh, maanaam hasard amul. tey bu ñu gisee tey nga am koo xam ne nii ressortissant guinéen la fa la cosaanoo nga jël ko vraiment jox ko ay moyen jox ko confiance mu di la liggéeyal mu Alfousseyni Sylla nekk le président de l' association nationale Darou Laye te mu nekk nii doon na jaadu ñu oo ko moom au moins en tant que ressortissant guinéen mu wax ñu xalaatam par rapport ak situation bi nga xam ne nii am na Guinée ak moom écho yi nga xam ne nii jot na ko fa Alfousseyni s'il te plaît waaw jox jox ko micro waaw mu ñëw waaw ñu dugal ko waaw waaw au moins voilà voilà très bien voilà très bien dëgg la dëgg la mu dëgg la ci parti Guinée boobu mu wax ci waaw mu ñëw mu ñëw Alpha Séni ñëwal ñëwal parce que ni sëriñ bi wax rek nee na Sénégal ak Guinée benn lañ moom loolu mandargal na ko le fait que mu indi Alpha Séni vraiment mu nekk ci wetam teg ko ci wetam aussi vraiment encadré ko alors donc doon na jaadu nag moom tamit en tant que Guinéen d'origine vraiment lii am aussi mu joxe ci xalaatam Alpha Séni kàddu gaa ngi noonu nga nuyoo ak téléspectateurs yi ak euh, ñi seetaan yëpp te nga ñëw aussi vraiment ci li nga xam ne am na Guinée waaw. Alfousseyni kàddu gaango. bon mhm. ah, asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi nuyu mbooloo bi di jiitoo nuyoo bi le calife général. Mhm. di El Hadj Thierno Moule Sow le la médecine traditionnelle du monde. Mhm. di la reine di ko ziar bu baax di nuyu prince Moule ñoom ajaratu Mariama Camara. ak yéen ñi nga xamante dañoo bokk ak plateau bi maa ngi leen di nuyu bu baax ak ñi nga xamante aussi dañuy seetaan eh, TMS TV maa ngi leen di jaar bu baax di nuyu en passage association Thierno Moule Famille Darou Laye pour le développement et l'entraide bu Sénégal. Mm-hmm. di ko dalee ci kaw ba suuf. di nuyu aussi association Darou Laye bu international di ko dalee si président bu Ousmane ba suuf bàyyi ma si kenn macha allah. donc Alseyni tey suivre nga Alpha Condé maanaam ni ñu ko daanelee dégg nga li li li sëriñ bi wax maanaam ci ci comportement bi mu amoon bëgg yootu yóotu troisième mandat amu ci woon droit mu wañ loxo nit ñi dem troisième mandat tey gis nga tey fi mu mujj tey yow mi nga xam tey ressortissant Guinée ngeen am fa ay mbokk jot ngeen ay écho tey ban maanaam lan nga ñuy lan nga jàngat ci de d'état bi. waaw macha allah grand Aziz donc euh, man dama si kontaan rek si coup d'état bi <laughs> hmm. euh, rawatina noonu Alpha mooy suñu président wax mm-hmm. euh, dëgg yàlla moom toog na si réew bi réew bi dara avancé wul mu nekkee di diviser aussi mm-hmm. donc soo jiitee mm-hmm. soo jiitee ay nit danga war a yemale yëpp dëgg la waroo di diviser donc moom na pour lii la gën a bañ si Guinée ah gis jaan sax moo ko gën a gis. <laughs> déet waay donc loo loolu moo gën a nekk li ñu ko atta li ñu li ñu ko coup d'état nii vraiment man. Mhm. dama si content bu baax a baax. Mhm, mhm. di rafetul loolu. Euh, parce que sonal na Guinée yi. du ñu puli kese kese. parce que ñu kese nekkuñ ci Guinée. soo xoolee ñu puli ñoo gën a bari Guinée. normalement langue nationale euh, peul la war a nekk. mais comme que ñu peel yi dëkkuñu Guinée dañoo ñëw. ñu Éthiopie lañ jógee ñëw. donc euh, ñi ñuul yi ñoo ñoo tekkis capital. dëgg la dëgg la ñu def ko langue langue nationale bi ñu def ko susu. Mm-hmm. donc euh, loolu noonu vraiment yëpp jooyoon nañ. Mm-hmm. jooyoon nañ mais du si mun dara. Mm-hmm. parce que Alpha Condé. Eh, xam ngeen ne kooku chef de chef de la. donc jaar na si armée. donc euh, am na xam-xam aussi bu baax a baax. donc waaw professeur la. donc pour daanal ko lii rek mooy solution bi. bu dul lii moom. kenn ko munal dara mm-hmm. donc lii noonu comme que yàlla def na ko vraiment ñu yëpp vraiment on est fier mm-hmm. donc dañuy kontaan loolu mm-hmm. parce que ñu Guinée yooyu sonn nañ trop soo xoolee million Guinée nekk Sénégal fii nii bu dee na ñoo suñu dëkk lañ nekkoon vraiment lépp dina avancé mais soo yoree xaalis sax munoo dem foofu di euh, maanaa di di won sa xaalis yi di lekk sa xaalis am na yi nga xamante ñu si bari ay million ay ay milliardaire lañ ay peul guinéen wala ñi nga xamante sax nekkuñu peul Mhm. ñoom ñemee ñu dem Guinée parce que soo nemee foofu soo demee foofu rek doon sa kaalis yi dañ lay rey mhm. parce que jour bu nga xamante jour bi baal takkul Guinée mhm. jour boobu nekkul nit ñi dañuy dañuy armé nga gis ñi nga xamante bandi dañuy armé soldats ni militaire wala seen gendarme yore ay seen pistolet dem rey nit ñi ci biir kër yi agresse lañ jàpp li ñu yor lépp du mujj fenn soo xoolee aussi euh, élection yi fi jot a passé yëpp euh, soo xoolee depuis élection yi moom ak moom ak Cellou Dalein ñoo doon xàccoo. Mhm. te Cellou moo ko ëpp nit. Mhm. macha allah saa bu ñu voté Cellou di koy gagné. Mhm. mais comme que premier mandat bi lu ñu ko jogoon loolu c' est normal parce que moom yàgg na euh, pour euh, ut ci ay kii pouvoir. loolu c' normal mun nañ ko jokk comme que Cellou ñu ngi doon doog génn parce que soo koolee même euh, kii nii sax laas na compte stojoon na ko. tojoon na ko prison boo soo koolee sax centre yu mag mel ni Tiken Jah Fakoly wooyoon na ko pour ñu libérer ko soo koolee foofu lañ ko blessé Alpha Condé foofu lañ ko blessé donc moom nag amul yërmande si Guinée parce que amul yaay amul pap maanaam amul doom amul doom. amul doom c'est important c'est important. moom amul doom si Guinée. Mhm. même bu mu nekkee président benn maire lañ ko jëloon ñu indi ko ñu ne ko léegi kii mooy sa jabar. pour mu mën a hmm. nekk parce que xam nga mënoon nekk jiiti réew aussi te fekkee amoo soxna. amoo soxna c'est important ça loolu parce que moom hmm. amul doom. Hmm. amul doom moo tax amul yërmande si ginnaaw yi da koy day def rek lu ko nekk. dëgg la dëgg la donc loolu noonu méttoon nañu loolu. mais ginnaaw instant nii jàpp nañ ko. macha allah donc ñu ngi koy téye d'abord. léegi euh, colonel Doumbouya. moom moo nekk si pouvoir bi pour l'instant. donc euh, instant nii non CBAO bi dañ si nakar loolu mais. lu mm. si mun dara. dara lañ ci mun parce que ñoom defoon nañ délégation ñu dem foofu. Euh, colonel Dumba lu mu lay wax wax leen ko. Mm-hmm. donc moom vraiment nekkul contre Alpha mais comme que dafa changé constitution mm. Guinée yi. Mm-hmm. loolu moo métti Guinée yi métti leen ñoom seen bopp. Mm-hmm. moo tax ñu defa ko coup d'état yi en même temps aussi Guinée avancé wul donc mu expliqué leen. maanaam sur le plan économique aussi liggéeyu fa dara lu baax. après ñoom ñu ñoom ñu wax ne léegi ñoom dañuy Euh, condamné Guinée. Mhm. donc euh, ñoom CBAO ak l'Union africaine dañuy condamné Guinée instant nii. Mhm. donc si loolu lañ nekk. Mhm. am na noonu ñi nga xamante aussi dañu bugg a dem euh, maanaa ñëw jàppale Alpha Condé pour ñu génne ko. mais du si mun dara. jaruñu si jéeme sax. parce que armée Guinée yi. armée Guinée mun naa wax ne Afrique fii instant nii armée Guinée yi moo gën a assir donc ñu si bari noonu xam nañ. parce mhm. que guinéen du ñu ragal du ñu tiit. Mhm. ñi nga xamante dañ fi nekkee foofu dañuy na boo dof. Mhm. instant ni ñoom lu ñu leen gën a nekk sax yeneen ñeneen ñëw foofu ñu ne pour kek <laughs> loolu leen loolu moo leen gën a nekk instant yi loolu moo leen gën a nekk instant yi parce que bu dee sedd na nii rek loolu ñoom instant yi sawar ñu si loolu. parce que saa maanaam na tàng dañuy woon seen bopp. d' accord macha allah vraiment loolu méttoon nañ lool. d' accord mais kon que yàlla def na ne jàpp nañ ko. vraiment euh, alhamdulilah rabbil alamin léegi ñoom tam ñoom euh, force de l'ordre yi lu ñu war a def donc ñu organiser rek élection ñu bañ a jël réew bi voilà donc ñu bañ a téye réew mi ñoom tamit ñu organiser ay élection delloo ko delloo pouvoir bi quoi très bien c'est important loolu affaire la ñu organiser élection yi mhm. kon que waaw ñu jaarale ko si yoon mhm. parce que instant yii nii élection fu ñu organiser Guinée seetlu moo mhm. waaw bu dee ne sàccuñu moom seetlu mooy tët loolu moom yàlla moo ko may ay mbooloo ko donc ñu no sonn nañu trop soo xoolee la Guinée foofu donc dëkk bi dara dara dara dara rafetul quoi. dara rafetul dara nekkul. soo koolee euh, Afrique. Mhm. Afrique fii nii. Mhm. Euh, Guinée su nekkul premier risar. Mhm. de Afrique mun mun su nekkul premier mun na nekk deuxième. am nañ richesse am nañ pétrole am nañ bauxite am nañ jaama am nañ pétrole. mais mais feeñul ah, ci ñoom ak ndox yëpp am na. waaw lépp am na foofu amul dara lu manqué mais dara liggéewuñu ko. liggéeyuñu ko ñu noonu luñ gën a yàkkal. Mhm. mooy temps Sékou Touré. d' accord waaw moo yàkkal moo ñu yàkkal boo léegi loolu moo ñu téye. d' accord waaw loolu moo ñu yàkkal boo léegi. ñaan yàlla rek yàlla. amin amin amiin merci merci beaucoup. jàppale Guinée yi mais mais macha vraiment ñoom tam ñu am ñu merci merci des millions de Guinéens yi nga xamante ne fi nekk Sénégal sax waxatuñu la ah, monde entier. merci parce que monde entier foo dem rek da nga gis Guinéen foofu. merci donc lu tax lu tax ñuy jóge foofu di ñëw. c'est parce mhm. que foofu. suñu mhm. nekkee foofu du ñu mën a am lu ñuy liggéey. merci beaucoup parce que foofu liggéey amul. Mhm. Euh, liggéey yi fi nekke maanaam mhm. da nga jaay say doole donc loolu moom presque loolu da si bokk li doka réew mais lu gën daal mhm. bëgg nañ lu gën loolu moo tax gi dañuy dañuy dañuy génn rek di dem uti leneen waaw di dëgg la voilà merci beaucoup Alfousseyni defe naa ne dañuy def plateau spécial boo xam ne dañuy invité yeneen ressortissants ginee comme ça ñu organiser ko TMS organiser ko comme ça ñu xam vraiment les tenants et les aboutissants ak peuple Guinée bi lan la ñuy xaar vraiment ci régime militaire bi nga xam moom moo nekk en place ak aussi élection yi nga xam ne nii wax nga ko léegi dañ ko bu war a organiser quand ñu delloo ko ñu delloo pouvoir bi quand même civil yi. Euh, ok grand démocratie am fa euh, si loolu de information yi ma jot aussi ñuy jàppee Alpha Condé. Mm. donc euh, dafa nekk maanaam bu ñu doon dem jàpp Alpha amoon na ñi nga xamante dañoo nekkoon si garde présidentielle mu ne coup d'état bi mënul am parce que loolu yooyu yëpp dafa leen bett euh, bu Dumbuya ñëwee si euh, ñu gis ko. ñu mm-hmm. tiir ay bal. Mm-hmm. après si la benn benn benn garde garde garde Alpha Alpha Condé. Mm-hmm. ñu ne ko dumbu yaa mooy ñëw. donc si lañ ñoon ñëw mu ne ko coup d'état bi du mun a nekk. yaa mu ne euh, loolu fan la force la. donc si la tiire dix personnes. dix personnes si garde présidentielle dafa leen tiiroo mu dem jël Alpha Condé. Mm-hmm. dem téye ko insay ni d'accord xam nga ne Alpha Condé moom. Mm-hmm. Euh, wérul. Mm-hmm. donc si euh, si information yi dégg naa ne d'ici deux ans. donc dafa war a génne yàlla moo xam. Mm-hmm. mais si information loolu lañ ko loolu mm-hmm. lañu loolu lañ wax mm-hmm. merci insay ni sa fu mu nekk noonu euh, docteurs yi ñoo koy toppatoo d'accord d'accord euh, d'accord amal <coughs> koy toppatoo d'accord d'accord d'accord d'accord léegi léegi li ci des moom xam naa dañ koy bàyyi vraiment ba ñu organiser un plateau spécial nga xam ne dinañ ñëw ci conditions yi ñu ko daanelee ak vraiment ñooñu nga xam ne wax nañ ci information ne maanaam jot nañ leen ci boom yooyu yëpp en tout cas ñu lay gërëm Alfousseyni vraiment di jox rendez-vous téléspectateurs yi ci benn plateau boo xam ne nii euh, ñu ñëw maintenant sur le coup d'état en Guinée avec euh, la fin du règne de Alpha Condé ak aussi le régime bi nga xam moom moo nekk en place donc defe naa ne euh, sëriñ bi il fallait que ñu ñu introduire Alfousseyni seeni même parce que ressortissant guinéen la mais mu nekk sa keppaar nga wone encore ne Sénégal ak Guinée benn lañ tey boo jëlee doomu Guinée tey teg ko sa def ko doom def ko jarbaat def ko confident def ko collaborer def ko lépp tey loolu mooy wane ne vraiment tey proximité ba am entre Sénégal ak Guinée vraiment c'est réalité moom doxal nga ko il fallait que ñu oo ko moom mu ñëw vraiment def témoignage te li nga wax daanaka moom moom la wax mais comme ni nga ko bëggee dinañ ko def incha allah dañuy organiser beneen plateau yaatu oo ay experts oo ay journalistes oo ay observateurs oo aussi des Guinéens nga xam ne ni dund nañ ko en direct quand même ñu ñëw ci un plateau beaucoup plus large en tout cas ñu lay gërëm baax sëriñ bi vraiment day so yéen bu bëgg yokk rek waaw macha allah rek comme li ñu wax rek loo lu Alseeni wax nii macha allah loolu moo am Guinée ndax ñun xam nañ Guinée dem nañ fa dem nañ fa demati fa xam nañ fa bu baax ni ñu xamee Sénégal fi noonu la ñu xamee Guinée kon di ñaan jàmm dellu siwaat ci Guinée mhm. comme ni ko waxee colonel Doumbouya mu delloo affaire bi civil yi gars yi def élection organiser élection mhm. ki nga xamante ne ku yàlla wax mooy nekk ci bopp réew mi mu nekk ci mhm. bopp bi macha allah Guinée mun a développé ndax gine nu ko al Alseyni waxee amul dara lu fa manqué ndox fruit or jamaa pétrole bauxite weñ ak lépp amul lu fa manqué waaye problème bi mooy liggéeyuñu ko président bu toog lekk yàq loolu la fa nekkee rey depuis Sékou Touré ba tey boroom xam-xam yi rey nañ leen boroom alal yi daw nañ génn gis nga li fi bëri li fi li fi nekk ci Guinée munoo xam ñaata la toll li fa seede àlla li nekk ci Mali Guinée li nekk ci Burkina euh, Nigéria Guinée ñoo ngi fu ne ci adduna bi ndax mënuñu am jàmm seen réew te loolu dafa métti te nag macha allah pël yi lañ ci gën a sibili pël yi lañ ci gën a sonal te pël yi ñooy boroom xam-xam yi ñooy boroom alal yi kon nag macha allah ñoo ngi ñaan yàlla def fa jàmm ak salaam parce que Alpha Condé macha allah dafa jeexal nit ku jeexal nag noonu la maanaam euh, day bëgg a euh, yóbbaale. Mm-hmm. léegi nag macha allah moo tax nag yàlla def ko lii kon nag ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax suñu Guinée suñuy frère lañu. suñu mbokk lañu suñu doomu ndey lañu ndax Sénégal ak gine benn la kon nag ñun ñëpp ñu ànd ñaanal gine yi yàlla def jàmm foofu. ba macha allah civil yi mën a jotaat ci réew mi mu dem ba mel ni Sénégal macha allah. amiin amiin amiin amiin jërëjëf réaction bu fekkee ne rek euh, am ngeen réaction par rapport ak. président Alseyni wax mhm. waaye tamit euh, booy def sa plateau na nga fexe mhm. ba les jeunes guinéens yi nekk fii ils étaient très engagés manifesté nañ fii jàpp nañ leen dóor nañ leen am ñuñ fi téye mhm. ndax dañu bëggoon dem vote ji ñu tëj frontières yi mënuñu woon dem très bien kon bu ñu organiser élection ubbil leen kon war nañoo mën a sawar ci dem donc seen degré d'engagement ñu natt ko fan la toll loolu dina ma neex très bien c'est bien Ngoné na tu n'as de réaction Maman Bella par rapport ak euh, la situation en Guinée bi dal na mhm. <laughs> non non du arrêté fi léegi léegi nag ñaanal nag yokkal ñaan gi nag. incha allah macha allah yokkal ñaan waaw ah barki dem boo ñaay ñaanal nañ Alpha Condé yàlla def na. nangu euh, nangu nañ réew mi ci loxoom. te jàmm am na fa. ndax ba ñu jour bi ñu ko coup d'état wee euh, population bi dañ doon jubilé. parce que dañoo yàkkamte woon mu jóge réew mi dafa leen notoon. kon nag alhamdulilah rabbil alamin defe naa ne euh, macha allah ñi ñaa ngi si jàmm dégguñu fa ay moor yu bari kon nag ñoo ngi sant yàlla bu baax yàlla na fa yàlla def jàmm ak salaam voilà loolu laa amoon lu may wax nag dolli ñaan gi dolli dolli nga ñoom macha allah boo xoolee seen d'origine seen cosaan yëpp xam naa Guinée la macha allah depuis voilà merci merci beaucoup jërëjëf jërëjëf donc euh, vous venez d'entendre en tout cas cette parenthèse que nous avions ouverte sur euh, le coup d'état en Guinée la réaction du marabout mais aussi le témoignage d'un ressortissant guinéen qui n'est autre que quelqu'un qui est très proche du marabout Alpha Séni Sylla le président de l'association euh, euh, nationale Darou Laye Famille maintenant ñu dugg nag ci euh, maanaam émission li ci jinne mhm. tey xam naa ne moom tey gis naa ngóone Oumy Ndoye Mama Bala ñu yor ay këyit préparé nañ tey moom xam naa ne duñ may sëriñ bi dara <laughs> xam naa tey daal damay xaw a reculer mais ñu may ma rek moo ubbee benn question sëriñ bi man sama benn question bi may ubbee mooy ah dafa am lu ma constaté di ko gis nga di ko def maanaam à propos de booy jëflante ak jinne maanaam épreuve physique bi ngay bi ngay bi ngay bi ngay wone jàmmaarloo bi ngay wone ak jinne maanaam ñëw sumeeku songu jinne ah def raag moom daaneel ko def ko lën ko bëgg a def mais sëriñ bi te ma gis ne yow macha allah vous êtes bien encadré parce que am nga sécurité te damay dégg sa sécurité nga leen di rendre hommage ci seen professionnalisme parce que ñoom ñëpp tey dañu seen xel seen xam-xam dafa màcc ci sport de combat du dëgg léegi nag may laaj sëriñ bi lu tax moom yow doo bàyyi sécurité yi ñoom maanaam au lieu que yow ngay jeg di raag di maîtriser maanaam nga bàyyi ñoom ñu defal la loolu comme que ñoom ci loolu la ñuy liggéey loolu lañ mën loolu lañ jàng loolu lañ xam lan nga bëgg a wane foofu bi loolu laa bëggoon xam waaw macha allah doyen maa ngi lay nuyu bu baax a baax vraiment di leen nuyu yéen ñëpp macha allah question bi nga wax noonu am na solo vraiment euh, macha allah sama jàmbaar yaa ngi fi sécurité comme ni nga ko waxee. vraiment ñoom macha allah ay professionnels lañu ci loolu. mais xam nga parfois deretu xale bi donte macha allah bienton 40 ans du ñu ay xale. bientôt quarante ans. mais xam nga dañuy bëgg a wane suñu bopp ci jinne yi parce que parfois euh, jinne yi maanaam da ngay jàkkaarloo jinne mu ne mënaloo ma dara wala nangam ak nangam dañuy bëgg a wane rek euh, faj bi naka la ak nan la macha allah defe naa ne ajaratu a Kamara sax moom si boppam ñaan nañu euh, bu ñu jaxasoo jinne yi nañu bàyyi sécurité yi jàppal ñu ah, aussi la reine madame Sow ah, yow it tamit noonu defe naa ne macha allah waaye xam naa ne bu yàggee dinañ ci dinañ gën a bàyyi xel ci loolu mm. waaye xam nga parfois jinne day ñëw ak façon yaakaar ne lu yàlla bind euh, nit bu mu jàkkaarloo daf lay humilier donte nag yàlla jox nañu xam-xam ak baatin ak noo mun a mel soo ñëwee jàkkaarloo ak man euh, da ngay gis bu nu may jëflante ko parce que da ngay gis parfois euh, benn jinne lu toll ni ñetti sécurité parfois duñ ko mënal dara parce que dañu am doole waaye man da ngay gis ne saa yu ñu roofoowee rek pour ma wàccee leen day yomb parce que ñoom yàlla daf leen may xam-xam may leen kàttan aussi bu dee affaire doole ngay jaayante ak ñoom du mën a sotti maanaam xam-xam ngay mën a jaayante ak ñoom baatin wala technique te macha allah boo xoolee sécurité aussi euh, formé nañ leen tamit ci naka la ñuy dafay jinne yi te bañ bañ a waaw maîtriser macha allah parce que parfois jinne day ñëw ak xadar ji ngeen jinne karateka bi mm-hmm. mu ne ma macha allah munoo si man dara ndekete moom ceinture rouge la waaye gis nga ba ñu jàkkaarloo ba ñu roofoowee macha allah la fin moom moo ñaan pour ñu arrêté moom ma daal di koy génne si ngeen tamit ahudda Shakir Mamadou Aliou Sow tamit gis ngeen jinne bu ma tuddee sama papa jinne yi bëri nga xamante ne macha allah balaa may jëflante ak ñoom day tàng jër waaye nag bu demee ba mu yàgg sax dinañ bàyyi sécurité yi bu ko defee ñu ñu mun a def liggéey bi macha allah très bien loolu leer bi may laaj sëriñ parce que da ngay dégg à chaque fois ñuy wax naan gàllaaj soo demee ci àll bi uti ji gàllaaj sooy ñëw boo tollee ba Dakar gàllaaj bi day toj ñu gis xalif général am na tamit ay gàllaajam yu muy defar ñu koy importer di ko yóbbu ba bitim réew ñooñ di ko jëfandikoo di ci di ci bég daal kon waa Europe yi ni nga xamee ne dañuy wax carrément di gis mbégte ñu bëgg a xam gàllaaj yi ñuy indi Dakar mm. ñu ne am na foo xam ne dañuy toj gàllaaj sa gàllaaj yi di génn macha allah nit ñi di ci am mbégte ñu bëgg a xam loolu leeral boobu. waaw côté Bargny la xam nga am na ñaari armeer ah, am na bu nekkee nii mhm. foofu tamit dafa am ay jinne yi nekk mhm. foofu aussi mhm. en général boo xoolee ay mbër yi fi daan bëri sax bu ñuy jógee ay mbuur wala Joal ci géej gi lañ daan jaare parce que dañ daan ragal jaar noonu seen gàllaaj toj loolu tamit daa ngeen ko dégg ay temps waaye man nag ak ñooñu bokkuñu macha allah xam-xam bi ma yàlla jox ak baatin man sama gàllaaj toj ko lu ko toj yombul moo tax am na ñuy jóge ay kees Kaolack Louga Ndar partout ci ci sous région bi jóge fu ne fa la ñuy bu ñu ñëwee bu ñuy ñibbi fa la ñu jaar ak sama gar sama sama garab sama gàllaaj waaye du toj yooyu yëpp dama ciy def li nga xamante ne dara du ko mën a yàq waaw macha allah loolu moo waral aussi muy dem ay bitim réew waaye foofu moom am na point yu bëri sax macha allah mhm. euh, gars yu bëri bu ñuy ñëw dañuy dañuy man mi bu njëkk njëkk njëkk mhm. ah, bu ñu musaan ñëw foofu boobu boobu dugg bu ma woon ci baatin bi dëgg-dëgg dañ daan wër bu ñu mosaan ñëw ba kii bi waaw dañ daan teggi man mii mos naa teggi boobu dañ jógoon ci àll bi ñëw noonu ñu teggi mais macha allah nu xam-xam bi yokk ak baatin bi jaratul teggi parce que lii war a yàq li war a yàq dèjà loolu buñ ko bloqué du ñu mën a yàqal dara man mi mus naa bu mus naa teggi mus naa ànd ak sama rakk mu nekk mbër ñu demoon ci àll bi ak yooyu mais ba ñu ñëwee dañoo mën ñu teggi noonu jaar ci tool yi si ginnaaw noonu macha allah waaye loolu bu njëkk la mais léegi xam-xam bi lépp ñëw na macha allah baatin bi ñëw na. Mhm. li war a yàq ak liy kale am na nooy def ba dara du mën a yàq. yooyu yëpp a ngi fi macha allah du jar ngay teggi. macha allah parce que nit ñi daf daal. loolu la rek Europe di jaar foofu. waaw xam nga xam moom. Mhm. dafay am au nouveau rek escalier lay doon rek macha allah. dëgg la Oumy dafa mel da nga am question yow itam. Euh, waaw man en fait euh, dama bëggoon laaj sëriñ bi. comme ci tirage la ñu jugee association international bi muy benn am nañu fi tam dañuy wax association nationale sax waaye sous régionale la ndax sous région bi yëpp bokk nañ ci euh, mais dama bëggoon xam tamit ndax dafa am troisième association parce que dama seetlu euh, video bi ngay jàppee waa xaaxaa da nga koy téye après temps bi dem ba mu guddi nga dajale jinne yëpp tuubal noo leen tuddee leen ñoom ñëpp association na Thierno Moule saw donc ñoom loolu tur la rek wala jëndee si tamit dañu am association man loolu laa bëgg. waaw macha allah jërëjëf soxna Oumy Ndoye association am na association internationale Daaru Laahi am na association nationale mooy bu nekk Sénégal bi am na tamit association Gambie am na tamit association jinne yi tamit ñeenti association jinne yi am nañ kon ñeenti am nañ association parce que ñoom ñoo ne sëriñ bi ñun tamit dañoo bëgg a def association dañoo bëgg a former def association pour comme ni nit yi defee parce que jinne day toppandoo ay nit jinne lu nit def rek jinne day bëgg a def loolu jinne tamit ñoom am nañ seen association waaye ci biir association yi nit ñi bokk ñoom tamit ñoo ngi ci biir lu mel ni association Sénégal bi nga xamante si laa moo ko jiite jinne yaa ngi ci biir association bi lu mel ni association bu nekk international Ousmane jiite ko ñi jinne yaa ngi ci biir ba pare yor nañ seen association bopp ba pare Gambie tamit créé nañ benn association bi nga xamante ne yàggul association bi moo ngi màgg ndànk-ndànk macha allah kon am na ñetti as ñeenti association. ñeenti association ñetti nit ak benn bu jinne. <laughs> macha allah te jinne moom lu nit di def rek. day bëgg di ñëwaat ci ngóone. man nag question benn question bi ngóone xaw na ko laal. Hmm. affaire garab yi waaw. mais xam nga comme man ci société bi laa nekk ci euh, askan wi. bu ma nekkul fii rek maa ngi ci askan wi damay dañ may poser question wala ñu may téléphoné depuis ma génn TMS daal léegi. waaw dañ may woo woo laaj. laaj mhm. waaw bu bari sax TMS nag macha allah euh, boo ci génnee moom ñëpp dañ lay. dañ lay dañ may laaj di ma laaj rek waaw waaw. Mhm. première question bi ñu ne léegi garab yi yow yow garab yi dañuy gis euh, garab yi ci kii bi si bokkaal yi mu bare lool léegi garab yooyu foo koy jëlee te sunguf. kenn ki ku jigéen la mu ne sunguf soosu te ñu ne sunguf moom euh, dafa gaaw mais day gaaw a jóge ndax du gaaw a jàpp wala bu jàppee day gaaw a dem waaw c'est ce qu'elle m'a demandé ba pare léegi garab bu bëri <laughs> boobu yow yow rek yaa koy defar wala jinne yi ñoo lay defaral <laughs> wala ñoom daal te ndax dañu gis témoignage yi hmm. waaw dañu gis témoignage yi ñoom dañu suivre de dañu gis témoignage yi seen affaire baax waaw man depuis loolu baax na loolu daal jaaxal na leen bon deuxième point bi mooy photo yi photo nu muy fajee nit loolu mooy ban façon loolu on m'a demandé saatam loolu <laughs> boobu ban mooy ban façon photo faj nit taabela loolu nu mu demee noonu wala mère Bella ok loolu daal laaj nañ ma ko garab yi ndax jinne ñoo koy defar wa foo jëlee garab yi jinne ñoo la koy indil parce que daal euh, résultat yi dafa <laughs> dafa positif daal day nekk ay résultats yu am mhm. waaw loolu nag moom yow kese yow yaa koy liggéey xëy na est que mun nga liggéey loolu yow kese man loolu xaw ma ko de da ngeen ma yóbbante dinaa ko wax daal d'accord d'accord d'accord boobu question après question bi ci des dinaa ko laajte waaw macha allah defe naa ne chaque jour ñu wax ko euh, macha allah liggéey bi yàgg nañ ci defe naa ne ñun ñoo koy liggéey ak suñu loxo bopp macha allah defe naa ne ay gàncax la yi nga xamante ne euh, ay gàncax yu bëri la ñu ñu composé am ñu ñu yónni ci àll bi ñu ni dañuy dem ci parce que damay faral di tukki lu bari saa yu ma demee li ma soxla damay jël sama temps dugg ci àll bi defe naa fan yee gis ngeen ay photo sax yi ma demee ci àll bi lu ma soxla yëpp man yii maa koy dem utal sama bopp yii am loo koy jëndee yii guddi nga koy ut yii bëccëg nga koy dafa am euh, ay gàncax yi nga xamante ne dañuy sababal suñu borom yii macha allah nii nga koy ute yii nii nga koy utee yooyu boo ko utee nga dëbb ko am na yi nga xamante ne xale bu jigéen bi nga xamante ne musul gis baax moo koy dëbb yooyu yëpp ngi ci hmm. am na ki nga xamante ne góor moo koy dëbb am na li nga xamante ne jigéen tamit ay maanaam dafa bëri ay façon daal macha allah. Hmm. léegi nag yooyu boo ko préparé macha allah loolu moo waral parce que tamit defe naa ne euh, ñun dañ cee yor euh, dañ grossiste lañ ci macha allah dañ cee yor ay ay ay stock yu bari. Hmm. préparé lépp teg lu nit ñu soxla rek macha allah ñu daal di ko indi su ko defee tamit garab yi. Euh, bu ñu ko mélangé ba pare man maay tëju sama nekk def sama xam-xam ak sama baati waaw man nag du ma wax nan laay defaree sama garab ak yooyu <laughs> def ci sama xam-xam ak sama baati macha allah muy dimbale askan bi waaw mm-hmm. loolu la parce que liggéey bi kat yàgg naa ci depuis 2007 ba tey su ma ci amul expérience aw ma ci xam-xam defe naa amul sens waaw defe naa garab yi loolu la defe naa ne garab tamit li ñuy wax sunguf sunguf du sunguf kese sunguf am na ñi nga xamante ne ay sëriñ sunguf kese la ñuy faje sunguf bi day dafay rax xam-xam dafay rax baatin day am alxuraan day am yu bëri yi nga xamante ne macha allah mm. pour waaw du sunguf simple kese sunguf yi dafa am yu muy àndal mm-hmm. waaw kay da ngay gis parfois nga dem ci sëriñ mu yëkkati sunguf rek jox la déedéet sunguf yi dafay ànd ak xam-xam ànd ak baatin ànd ak alxuraan ànd ak lu bari li nga xamante ne luy dimbali askan bi mm-hmm. loolu moo tax bu ko nit ñi laalee rek ñu daal di am njëriñ maanaam ñu gis ci njëriñ ci lu mu gën a gaawee photo yi photo yi defe naa photo yi tamit euh, jëmm ju sell la jëmm ji nga xamante ne yàlla moo def ci moom baatin def ci moom miraakal turu yàlla nekk ci turu yonent bi sallallahu alayhi wa dëmm yi ñemewuñ ko rab yi ñemewuñ ko jinne yi ñemewuñ ko macha allah bu ko nit ki amee def ko néegam bu mu kër gi waree daam côté boobu dara du ko laal bu waree lakk foofu maanaam yàlla moo def jëmm ci ci moo def barke ci photo yi moo def barke ci image yi ba nga xamante ne boo ko defee sa kër jinne bu ne woon salaamaaleykum bu gisee photo bi day dellu gannaaw loolu suñu boroom la defe naa ne ñi ñaa ngi koy def témoignage kon nag bu mu leen jaaxal xam na ne <clears throat> yàlla mooy maye yàlla mooy joxe xam-xam loolu ñu xam loolu ñu fàtte bu ñu fàtte suñu borom mooy maye loolu la waru leen jaaxal ndax nag euh, dañoo yàgg ci baatin bi yàgg ci xam-xam mm. suñu borom daf ñu ci defal lu rëy li nga xamante ne ñi ñaa ngi koy jënd ni ko doyen waxee comme petit mm-hmm. naa ne t-shirt yeeg <laughs> mm-hmm. euh, photo yeeg volcan mm-hmm. ngi koy jënd di yëkkati ay millions di ko jënd parce que dañoo gis njëriñ dafa am kenn ci ne xanaa xanaa xanaa jinne bi day sol photo bi loolu la wax mu ne xanaa jinne bi day sol photo bi <laughs> xam nga affaire da xale rek waaw euh, euh, baatin la. waaw ah, euh, parce que photo bi nga xamante ne parfois photo bi mun na génn baare. lu bon nar a ñëw defe naa ne. noo ko jàngatee rek. baatin la baatin nag nekkul lu ñu mën a toj. nit ki mooy am xel xam ne ni baatin la. xam-xam baatin moom yàlla moo koy jox. nit moo koy def ci doomu yëg-yëg la. macha allah dëgg la Ngone Dia. Mm-hmm. waaw beneen question ma daal di ñëw ci li nga xam ne ne macha allah mooy le roi xaaxaa mu nekk histoire boo xam ne yaakaar naa ne Sénégal monde entier dootuñ ko fàtteeti mu nekk foofu nga xam ne mooy plage CBAO nga jàpp fa benn jinne jinne bi nga xam ne yaakaar naa ne Sénégal ñëpp seetaan nañ ko lu ma gën a marqué ci say vidéo ci la bokk mooy histoire de roi xaaxaar ngi gis mu la Sow daal di dugg si li nga xam ne moom mooy ci plage bi daal di sol jas jasneeram def ci allaaxu bi mu dugg see allaaxu waaxi dun allaaxi waaxi dun jinne yeeg nit ñëpp di daanu di périer ñu buggoon xam alaaji Cerno lan mooy lan mooy secret bi nga jàpp fa jinne bi nga xam ne macha allah ñu ne jinne bi moo daaneel bateau la ci histoire Sénégal kenn dootu ko fàtteeti jinne bi daaneel bateau Titanic mu nekk loo xam ne ne kenn dootu ko fàtteet ñu bëgg seen na loolu nag nga ko dundee jàpp jinne bi nga xam ne ne bata la joolaa moo ko daan jinne bi dëkku la sa kanamu yaay nee la tey moom dalay rendi wax ne moom 100000 combats la am zéro défaite nga wàcceeku loolu noonu nga ko dundee ak yére bi nga duggee allaahu waaxi dun jinne yëpp daanu ci marabu bi la wala ci yére bi la allaahu bi la loolu macha allah ci suñu si <laughs> marabu bi la yàlla moo ko def ci man ndeysaan yàlla moo def baatin ci man ak xam-xam ma bëgg yàlla bëgg yónnente bi moo waral may jël ay jasineer yi si bind allahu muhammad mhm. loolu dama ko yàgg di def depuis ma nekkee si kaab mbaaw ay jamono yooyu danila moo xewoon jasineer ñëwul woon danila ma koy def allahu muhammad damaa yàgg bëgg yàlla bëgg yónnente bi macha allah moo tax ma koy def ay yére mhm. bëgg ko mu nekk ci man macha allah ngeen sama yaram sama bët sama lépp yàlla ak yónent bi maanaam maanaam allahu muhammad loolu moo waral su mbooloo yëpp dajee damay bëgg sol yëre allahu muhammad pour delloo nit ñi ci yàlla xamal ne lépp yàlla la ndax xam nga macha allah su ma ñëwoon man kese sol sama beneen yëre euh, macha allah mun naa def lu bari ba ñu bari dinañ fàtte suñu borom mais bu ma ñëwee indi allahu muhammad delloo nit ñi ci yàlla ñu xam ne lépp yàlla ak yónent bi la loolu moo waral may sol yére boobu noonu pour delloo siwaat nit ñi ci suñu borom pour gën a wàccee sama bopp gën a suufeel suma bopp ci kanamu suñu borom moo tax may sol yére suñu borom ne lépp suñu borom la moo ma jox xam bi jox ma baatin bi loolu moo waral may sol loolu ak yëg-yëg fi ma yëg suñu maanaam fi ma toll suñu borom loolu moo waral may def loolu mais xam ngeen ne macha allah Cambérène dama fay ñëw sol sama bu ñu ma gisee dañuy daanu ñëw naa fa yoon yu bëri jinne yi duñ mun a xool duñ ma ñemee xool ñu daanu daanu mais comme événement yi toll noonu soo fa ñëwee def fa ay miracle def fa baatin ak xam-xam ñii ñi mun nañ fàtte suñu borom mais foog nga dellusiwaat nit ñi xamal leen kenn. lépp yàlla lépp suñu borom la moo tax may sol drapeau def allahu muhammad pour xamal ne kenn la kii la mooy yàlla. macha allah yonente bi moom la ñuy topp mooy suñu référence du teema def sama liggéey loolu moo waral ma koy sol ndax bëgg suñu borom jeex ci moom tàkk nag loolu moo waral ma koy def pour gën a fàttali nit ñi mbir mi du man suñu borom la waaw ah, macha allah ñu gis tamit euh, génn jinne bu doy waar daal di lay dëkk. daal di mooy lu roi xaaxaa ki may wax. waaw daal di xumbal foofu yuuxu am ay ñoñom yu mu àndal ne tey moom da lay rendee ginnaaw. du la may dara ndax tey la am 100000 combats. mais bi mu la waxee moo daaneel ba tala joolaa da nga ne allah ko akbar. waaw tëb période chaise bi wàccaat. waaw action yooyu ñu koy gis. Mm-hmm. mu nekk loo xam ne peut-être da la frappé. waaw daf ma frappé parce que mm-hmm. ba tala joolaa ba muy daanu loolu ñoo ngi woon ñoo euh, La Rochette. benn fajar la ñu ne bato de Joola dafa suux boobu noonu ñun ñoo ngi koy fàttaliku macha allah yàggul noonu mu jaaxal ñu metti woon ñu lool moo tax ba ma ko jàkkaarloo mu ne ma maa daaneel bateau de Joola damay tëb parce que damaa jommi damaa ah, yéeme ko daaneel ba pare teg ci mu ne Titanic moo ko daaneel bateau yooyu nga xamante ne moo gën a mag ci àdduna bi mm-hmm. Titanic histoire woy na ko mm-hmm. macha allah bateau de Joola aussi mu ne mu ne am na cent mille combats zéro défaite mm-hmm. jour woowu macha allah jàkkaar naa ak jinne bu ne mais jinne bu mel noonu jour boobu laa njëkk a jàkkaarloog moom. ba pare requin la. ba pare moom ci booru géej gi foofu la dëkk ci géej gi la dëkk. macha allah jinne yu bëri ngemb ko ñoom maam yandeeg yooyu jinne yu bëri ngemb ko. pour mu toroxal ma humilier ma te boobu mooy sama première sortie dem ci géej. naan damay damay damay damay def luuma. waaw ci kanamu ajaratu Mariama Kamara. ci kanamu ñëpp macha Euh, gis ngeen fu mu mujjee ak le roi xaaxa am na cent mille combats zéro défaite. Mhm. vraiment jour boobu laa ko wàcce macha allah toroxal ko tuubal ko dugal ko ci lislaam mu jël sama loxo yëkkati ko daw ak man ba ci ci mbooloo mi yëpp ne ma man la defe naa ne ñëpp seetaan nañ ko. loolu ci kanam ñëw ba pare su jota ajaratu Mariama Kamara. Mhm. mu kontaan macha allah mu xam ne ne ah, doomam si gil na ko. ndax nag ku mel ni jinne moom musul dégg jinne musul gis jinne jinne ñëw su ci kanamu doomam. <laughs> xam nga ne loolu vraiment sigil mënul romb foofu ci ñëpp toog sa doom macha allah def lu rëy def lu lu lu yéeme ba jinne ñëw sigil euh, sujootal la loolu mm-hmm. defe naa ne lu rëy la macha allah di ko sante suñu borom rek mm-hmm. macha allah loolu marqué na ma histoire bu mag la euh, mm-hmm. bateau de Titanic le roi xaaxaa euh, defe naa ne macha allah jinne bu mag la ci jinne yi waaye gis nga taalibe la loolu loolu rek macha allah doyoon na doyoon na ndam doyoon na félicité doyoon na grade waaw waaye nag sant suñu borom rek macha allah. Mm-hmm. Oumy Ndoye. ñuy rafetlu rek suñu palmarès Serigne. nag man tamit nag maa ngi noonu cent cent mille combats zéro défaite donc benn defee defetam bi mu am ci àddunaam sëriñ beeg ko jox mu fair play nag nangu ko jàpp ko yëkkati loxoom def ak moom tour d'honneur kon euh, jinne bu fair play mi ngi noonu waaye euh, mu mu mel ni euh, dama la bëggoon laaj sëriñ bi parce que dama dégg ne yaa ngi préparé beneen luuma préparé luuma est-ce que metti na wala mettiwul. ah metti na kay. ak ah, itam est-ce que booy dem di nga xam li la fay xaar ndax xaaxaa keroog nekkoon na surprise. donc booy def luuma est-ce que yow di ngay xam li dafay xaar wala di di di nga ko mën a natt sama deuxième <laughs> question muy témoignage yi euh, yàgg nañu dégg ay témoignage mais témoignage yi macha allah temps yi dafa takkarnaase témoignage yi fu nekk lay jógee man damay dem ba damay réer sax avant dara daanu ma rëcc mais léegi nit ñi dañuy ñëw YouTube bi dangay taseeg nit si mbedd bi sax muy témoigner donc loolu nag naka nga koy dundee macha allah. waaw macha allah soxna Oumy Ndoye ñoo ngi kontaan bu baax macha allah. Euh, li nga wax rek euh, dafa am solo euh, témoignage yi macha allah maanaam liggéey bu liggéey bu bari la bi ma daan liggéey ci ginnaaw def ñaan ñaan bu sell bu set léegi nag loolu mooy feeñaat nit ñi di def ay témoignage loolu la maanaam boo nekkoon di liggéey rek boolewoo ko ak daraa ko wax léegi nag ñi ñooñu nga doon ñaanal nag ñooy wëlbatiku aussi di def ay seede. kon retour la waaw retour la rek. en même temps tamit ñi nga xamante ne dañuy utiliser surtout utiliser ñetti Thierno Moule Sow ak yooyu macha allah ñoom ñooy wëlbatiku di def ay témoignage te defe naa témoignage sax des na. bëri na ñi ma ñaanal tamit ñi nga xamante ne amuñu woon doom actuellement ñii ñoo ngi ci ay huit mois six mois yooyu yëpp ci kanam di ngeen gis dina bëri ñu def ay témoignage ñu yor ay doom ak yeneen ak yeneen parce que damaa yàgg di liggéey nag. jot na nag ñin ñi may dimbali ñu génn di wax di di def ay témoignages parce que loolu tamit am na solo bu nit defee lu baax ñaanal la nga gis war nga def témoignage wala nga utiliser turam wala nga utiliser photoom yoon la nga def audio yónnee ko ne ko vraiment lii ak lii kat moom nga ma defal sant naa la gërëm naa la mm. pour détracteurs yi ñi nga xamante ne macha allah yàq moo leen taxoon jóg saa su ne témoignage yaa ngi ñëw di daal seen kaw kon moom loolu defe naa sant yàlla la beneen question yi lan la tamit nga wax. mooy luuma yi waaw luuma yi waaw luuma yi tamit comme ni nga ko waxee suñuy dem kay soxna umi macha allah euh, dem bi du ñu xam lan lañ fay fekki. c'est vrai ah ba may dem euh, ci géej gi loolu roi xaaxa xaw ma lu ma fay fekki xaw ma lu ma fay xaar. parce que tamit mënuma xam lu ma fay fekki ndax boo wootee ñëpp dañuy ñëw. ba may dem Kaolack tamit xaw ma lu mu fay fekk. waaye man woolu woon naa sama bopp ak sama xam-xam ak sama baatin ak lépp lu ma fa mën a fekk ci kattanu yàlla danaa ko wàccee waaw loolu moom assuré woon naa je euh, attaque je cogne je gagne lépp lu ma fa mën a fekk danaa ko danaa ko mais xalaatuma woon dinaa ko fekk ki nga xamante ne moo daaneel bateau de Joola daaneel Titanic ak ay armée façon jinne yooyu xalaatuma woon loolu wax dëgg yàlla il m'a fait euh, euh, ma def surprise surprise waaw waaye tamit ba ma ko fa fekkee tamit gis nga ni ma jëflante ak moom mhm. sama xam-xam ak sama kattan ak sama baatin moo ma dimbali ak suñu borom macha allah nga xamante ne moo nekk sama kanam ak sama ginnaaw moo ma jàppale macha allah te tamit suñ koy def tamit damay financer xaalis bu bari mhm. parce que déjà xaalis bu bari laay def affaire luuma yi dafa bari fere parce que boo koy def soit euh, da ngay financer lu bari Kaolack ba mu fay dem daanaka 3 millions laa financé calculer euh, bu dee 100 personnes wala 200 personnes yu war a ñëw fay la après nga mujj def gratuite foofu da ngay perte ay millions calculer luuma bu ma def rek luuma bu ma def luuma bu ma def maximum war naa fa perte même bu dee cent millions calculer luuma bu ma def rek perte naa fa cent million wala plus ah waaw parce que tamit mbooloo moom yëpp tey su la kenn ku ne fayoon un million cinq cent deux millions soo calculer loolu xaalis la luuma boo def moom perte nga xaalis parce que ñenn ñi dañuy profité sax bu ñu waree ñëw faju bu ñu faju dañuy bàyyi dañuy bàyyi ba Thierno di def luuma ñu ñu ñu def luuma ñu ñëw nit ah, waaw comme tey ji nga def ko defee entrée sax daanaka pertement la parce que doo ci am dara benn nit ñëw fay la un million cinq cent deux million defe naa ne même boo defoon entrée cent mille sax amul ba amul ah, pertement la waaye li liñ ci doon def bu loolu dañ ci doon def ngir sant suñu borom ngir liggéey yàlla moo tax ñu ko daan def luuma yi ma fi def yëpp ñetti luuma yi mag yëpp addee suñu borom laa ko def addee yonte yàlla Muhammad mm-hmm. addee suñu borom loolu laa ci daan def defe naa ne fayum suñu borom moo ëpp loolu laa defoon ñetti luuma yi parce que tame ah euh, tame te aussi koo ci ñaanal koo ci dimbali doo ko gis am na ñu bëri ci leen defari ko seen affaire baax doo ko doo ci gis kenn kenn du ñëw remercier la kenn du ñëw gërëm la te ñu bëri ci lañ defaru def na ba jànk boobu nekk kër ga sax Mariama ci luuma ba la ñëwoon ci la mën a dox ci la am jàmm macha allah moom vraiment gis ngeen ko maanaam luuma bi soo ko defee moom dangay perte luuma bi war nga ci mun a encaisser lu ëpp cent millions mais boo defee luuma bi da ngay perte lool. te luuma bi da ngay faj waale benn yoon. ah waaw faj gratuit la la. da faj kay bi yaakaaroon ni xam nga luuma yu njëkk yaa ak léegi. wax dëgg yàlla léegi nit ñi gën nañu xam kan mooy alaaj Thierno Moule est-ce que ragaloo boo defee luuma gratuit nag mu déborder bi la yoon. waaw waaw ñoo ngi ciy xalaat ñoo ngi bëggoon def luuma mais foog ñu xalaat ci nag. waaw parce que dèjà parce que dèjà ñu bari ñoo ngi xaar luuma bi actuellement am na ñu bëri ñu bëgg a faju de ñoo ngi kal ñoo ngi koj luuma bi. ah nañ nag ñoo ngi koj parce que luuma bi moom ñoom seen arrangement la du arrangement Thierno Moule Sow. Thierno Moule Sow amu ci benn intérêt franchement parler amuma ci benn intérêt lu dul sama alal mooy génn. ak sama doole ak sama énergie ak sama coona lu ma ci am jërëjëf xanaa ma am ci yàlla ak yonente bi laa ci am waaw lu ma bi moom yàlla ak yonente bi waaye duma ci am merci Cerno am na ñu xam ñu xamul loolu de man maa ngi soog a xam ne ndekete boo demee ci luuma da dangay fajuwaale damay xaar da ngay faju kay non man damay xaar luuma bi mais luuma bi boo ñëwee ñu man sama luuma yi ma def fii ñi si ñëwee faju nañ am na ñu am fi leen jaare am jëkkër am na xamante ne ñëw nañ ne sa luuma bi jinne yi ma toppoon yëpp dañ na ci laa jaare am jëkkër ci laa demee tukki ci laa nangam am na ñuy dagg sax paas bitim réew ñëw parce que boo jour boobu bu may ñëw xam-xam bi ak baatin bi lépp lu nekk ci yow bu ma nee salaamaaleykum yëpp day génn ma tuubal jinne ak yooyu luuma bi njëriñi gaay la du sama njëriñ de amaluma benn njariñ lu dul njëriñu nit ñi la waaw parce que dañ ciy faju ah amaluma benn njariñ de dama ko yi ma def nag yëpp addee suñu borom laa ko rëccuwuma ko nag parce que yàlla nag boo ko defee rek macha allah defe naa ne mu delloo la te rëccuwuma ko waaye boo xoolee man duma ci gagné dara parce que benn dañaa ci am coona sonn ci luwe samay oto luwe fay fay ay siège ak euh, ay baas fay ay sécurité def autorisation ak luwe terrain beeg wala stade beeg génnee xaalis ba pare faj ñi ñi gratuit après doo gisaat kenn gis ngeen Kaolack ba ma fa demee ñi ma fa faj yëpp ñëpp a réussir ñii amuñu woon jëkkër ñu am jëkkër ñi amuñu woon jàmm ñu am jàmm ñii tukki ñii mais doo ci gis kenn benn benn ngay gis ku mel ni Cheikh Baye macha allah moom nit la day ñëw def teraanga ñëw nuyu ak yooyu mais amuñu reconnaissance loolu mooy problème bi bu seen affaire baaxee rek gisatoo kenn man ñi ma faj yëpp bu ñu amoon kóllëre ndege ne heure bi kenn ku ne bu ma defoon un franc dërëm dërëm tabaxal nañ ma clinique wala tabaxal nañ ma palais mais nit ñi ku ci wër doo ko gisaat day day làqatu du nangu sax ñëw def témoignage voilà merci donc euh, amis téléspectateurs yi ñu seetaan sur la TMS TV ñu ngi fi en direct ci salon privé bu xalif bi ci émission li ci jinne émission euh, ma ñëwaat euh, sëñ bi ci benn question man ci faj boobu ci laay taxaw. benn question yow nga jël sa bopp sama question bi xam nga def naa deux. doo ma may rek dinaa ñëwaat. waaw demal demal baal dinaa ñëwaat ma maa ngi jéggalu ok alors sëñ bi ma ñëw ci ci benn question parce que da nga ñëw ci affaire faj faj boobu ci laay taxaw tuuti. ki nga xam ne ni dafa jinne yi dañ ko jàpp topp ko ay mbokkam indi ko ci Thierno Moulay Sow ngeen waxaale ba ñoom ñu war a joxe addiye bi nga faj ko ba bi muy dem dafa maanaam yëgatul dara kooku ndax bu toogee am lenn lu feeñuwaat ci moom maanaam am yeneen jinne yu feeñuwaat ci moom dafay ñëw continuer traitement bi ndax dafay fayaat wala da koy faj ba nga xam ne ni dinga yëg yëg nga ne jinne yi nekkoon ci moom yëpp génn na hmm? ma ki ñëw faju si maanaam nga génne jinne yi xam nga génne nga jinne yi léegi mu daal di dem léegi su demee parce que léegi damay dégg ñaan kii ay jinneem dafa des maanaam usure jinne la ndax kooku war na mun a am droit ñëw continuer waat traitement bi wala dafay ñëw recommencer à zéro euh, macha allah bu ñu tàmbalee di faj nit mhm. balaa ñu tàggoog moom day pare ah très mais bu ñu paree ak yow nga dem toog ba heure bu la neex nga bëgg ñëwaat da ngay def consultation nga fay parce que ñenn ñi tamit dañuy bëgg lu yomb bu ñu xasee ba ñëw ci yow faju fay la dañuy bëgg seen ngiiru dund rek lu leen wokk ñu daw ñëw loolu tamit du mën a ne parce que boo demee hôpital def consultation mhm. médecin bi daf lay suivre defal la traitement ak yooyu bu mhm. sa traitement jeexee jeex na mhm. soo ñëwee nag balaa ñuy tàggatoo macha allahu ñun dinañ préparer li nekk ci yow yëpp dina denc ci kattanu yàlla ñu demee nag ba pare ak yow ñu tàggatoo nga dem boo demee nag ëllëgee bu la leneen dalee da ngay defaat consultation parce que loolu foog mu leer defe naa ne ñu ngeen di gis di leen gisaat dañuy bëri ay jinne mais tax saa yu ñëwee ñu génnewaat parce que yeneen gis maa ngi topp di suivre tamit nit ki saa yu ñu commencé liggéey ñu def euh, ñu def contrat dama lay faj ba li la tax li la indi ñu pare ci loolu tant que pare wuñu duñu du ma la bàyyi su ma la maanaam bu ñu demee ba pare nag su ma la bàyyee mhm. ñu tàggatoo nag nga dem mhm. ëllëgee boo demee leneen arrivé la da ngay defaat consultation parce que loolu tamit foog mu leer nekkul sa ngiiru dund rek Thierno Moule moo la war a ah, faj loolu parce que ñenn tamit dañu bëgg lu yomb dañuy ñëw nga faj leen ñu dem ba tane am jàmm mm-hmm. demaat nekk ci li leen neex wala nekk ci li nga xamante ne mm-hmm. da nga leen ko tere woon defaat ay tuuxi dund dafa ay courte carte ba affaire yi yeneen biir songaat leen mm-hmm. yooyu buñ ñëwee dañuy defaat consultation parce que tamit ñenn ñi ñoom ñooy dem ñooy dem di meeb jinne yi tamit waaw parce que tamit da nga leen di faj génne li nekk ci ñoom du ñu dem tranquillement respecté bañ a dox yenn waxtu yi wala bañ a def yenni nekkaat ci yeneen ak yeneen affaire roofaat leen tamit ñu ñëwee da ngeen defaat consultation waaye li tax nit ki ñëw fay la bu ñëwee sa kër loolu moom da nga fexe loolu mu jeex tàkk mu jeex tàkk ngeen ñaanalante mu dem macha allah tant que jeexul nag mm-hmm. doo ko libéré très bien ah. donc defe naa information précision boobu leer na nañ waaw waaw ah, il fallait que ñu leeral ko te leer waaw parce que maman Bella maintenant sa benn paa la ah astafurlah benn kilifa la daal un patriarche bu nekk guy Fatima Maïga moom euh, euh, xam naa daf la seetaan da lay seetaan tout le temps kilifa la nag mu ne mu ma laaj mu ngi laajte mu ne jinne dañuy jël sa temps lu bëri da ngay liggéey liggéey ba def lay yërëm ma ne ko kon yow da ngay mu ne man tout le temps maa ngi si léegi jinne est-ce que duñu jël sa tangu julli ban heure ngay julli waaw macha allah dañuy julli nag parfois damay tëj néeg bi julli ci biir defe naa ñoom alseen xam ne damay julli damay julli damay julli bu baax a baax waaw waaye nag xam nga kenn ku ne ku la ne du faat waxtu maanaam loolu yombul mhm. même bu waxtu bi jàllee da ngay ñëw julli dañuy julli bu baax nag mais boo gisee tamit liggéey bi lu tax euh, nit am problème jinne ma insister bu nekkoon keneen mënoon na la jox garab ne la nga dem wala nangam mais man damay nangu sonn si nit damay sonn lu ko nu ko waxee moom damay nangu sonn si nit damay nangu insister parfois lii day nekk li nga xamante ne sax waroo ko faj tay tay tay man ma bëgg ma faj ko tay tay tay tay am na faj yu bëri man damay insisté nee na tay tay tay tay nit ki day am jàmm tay tay tay te normalement loolu sax warul mën a ne mais sama njàmbaar ak sama doole ak sama fit ak sama jom ak sama bëgg jàppale nit ki moo waral parfois nit day ñëw ma yàgg ak moom normalement li warul génn tey de jinne bi warul génn tey danga ko war a def ndànk-ndànk ba mu génn mais day ñëw ma insister jël sama temps yëpp ci nit ki mu génn comprendre nga loolu sama xol bu yaatu la mais mënoon naa bañ a def loolu sax nag soo ñëwee ma jox la li ma lay jox ma ne la demal nga sangu comme ni ko sëriñ yi defee ak yooyu mais bëgg dimbali nit ki su ma xamee ne yow sa jinne bi dafa war a génn damay insister pour mu génn loolu nag njàmbaar ak sama jom ak sama fulla moom moo koy ak yërmande mais mënoon naa ñëw ma jox la ma ne la nga dem comme yeneen sëriñ si mais parfois sax damay insister li nga xamante ne man mi sama bopp xam naa ne lii euh, du war a génn tay tay tay mais damay insister ba yàlla dimbali moom mu génn tay tay loolu tamit foog nit ñi xam loolu maanaam dama nangoo sonn si nit nangoo sonn si malaat mais ñu am colère ñoo bariwul koo ci ñaan bu afaram baaxee doo ko gis ñu ngi ciy gis benn benn la colère moom amuñu si zéro koo ci dimbali bu affaire am baaxee doo ko gisaat man ñi ma ñaanal ñu réussir ak a bëri xaw ma lu ñu toll ak ñi ma dimbali waaye nag dañuy def ngir yàlla waaye tamit boo dañ dañ ñuy fay parce que bu njëkk dañ daan faj ay nit après du ñu fay dara à la léegi dañoo xam suñu bopp bu ñu juboowee dañ ñuy fay ñu faj la soo ñëwee maanaam boo demee fàtte ñu kooku sa affaire la soo ñëwaatee euh, am reconnaissance ñu xam ne ne macha allah parce que am na ñoo amuñu kóllëre man ñi ma dimbali te man xol faje mm-hmm. dama nangu sonn ci malaat nangu sonn ci nit insister pour lu nekk si yow mu daj mais ñenn ñi ñoo am reconnaissance ñeneen ñi maanaam bu seen affaire baaxee du ñu rombaat foofu sax <laughs> loolu dafa bari. Mm-hmm. waaye nag loolu moom loolu moom leer na. waaw euh, ah. ah. Mm-hmm. li muy insister noonu yenn saa circonstance lay doon parce que da ngay fekk nit ku ñëw jóge bitim réew war a ñibbi jinneem yi des. nga gis sëriñ bi dalal ko ci clinique bi loger nourri blanche téye ko foofu di ko toppatoo di ko jox muy lekk di ko lijjanti génneel ko ay jinneem yëpp ba jinne yi jeex mu doog a dem ñibbi te mënoon na ko ne demal nga fexe utaat bi nga ñëwaat. waaw kon damay damay. waaw waaw rek wax si yërmande gi mi am. dëgg la day insister dëgg la damay insister yooyu yooyu mun na ma ci bañ a fekk. Mhm. mais yërmande bi ma am ci nit ñi ak ci jaam ñi moo tax euh, ku ma ci jëflante après nga bëgg ma war rek du baax ci yow musiba la lay jural. parce que sëriñ bi dalay jox xolam dalay jox xolam ak énergie am dimbali la ak baatinam après soo amee parce que am nañu ay tra ay warkat lañu da ngay jëflante ak ñoom suba suba ñu indi la war wala indi ay kutukaat mais ñooñu moom boo ko dinaree def rek dañuy dañuy damm sa laaf parce que dafa am ay war ay moo tax filmer bi dafa am solo filmer dafa am solo di filmer di teg parce que nit ñi da faj ñi tey suba mu nekk sa noon mhm. faj bi dafa grave affaire ñaan yi da ngay ñaanal ni tey suba mu kompaloo nekk sa noonu jéem la daaneel mais en ñooñ nag ñi ko jéemoon yëpp nag ñoom ñoom loolu jiguleen ah àgg waaw waaw man moom loolu la baax naa trop waaye damay sooraale lépp nag muy kii may liggéey ak muy ki may fajak boo indee trahison rek yow yaay njëkk a yëg parce que nit ñi dañu doy waar nit dafa lëndëm da ngay ànd ak nit tey suba mu war la sëriñ bi nag day sóoraale loolu yëpp nag mhm. parce que yàgg nañ ma war moo tax bu ma lay faj dinaa laabal biir defal lépp pour dimbali li nga li la tax a jóg ci man mhm. yàlla dimbali la mais boo indee trahison rek da nga am problème waaw muy muy muy muy ki ngay liggéeyal muy ki ngay faj ak yëpp parce que nit ñi dañu doy waar ni dafa lëndëm tey da ngay liggéey ak nit suba mu jógee dem war la defe naa loolu yëpp gis nañ ko fi mhm. waaye man moom macha allah damay sóoraale lépp nag ndax man euh, dara duma bett léegi ndax nag dund naa lépp mhm. dund naa ak ay nit ñu war ma faj naa nit ñu war ma moo tax léegi dara mënuma bett népp laa expérience plein plein waaw non c'est vrai waaw loolu moom leer na leer na parce que tamit bu ma faj bi yàgg naa ci su ma ci amul expérience ñoruma tamit doo du ma ñi ma doon këll këllal yëpp tey wàcc nañ dem nañ dem nañ vaar ni ko ngoonee waxee waaw parce que nit dafa lëndëm doomu aadama dafa lëndëm dañuy da ngay ñoom ñu lay gasal ay pax waaye nag man boo ma gasalee pax mootul mu xóot su xootee da nga dugg foofu nga bëgg a génn mu tëla c'est importance dëgg la soxna Ngoné waaw man sama beneen question bi may ñëw mooy comme jinne yi ñoom ni ñuy toll ak melukaan yi ñuy am te jinne yi à chaque fois dañ naan ñoom bu ñu nekkee liir lañ ko tudd ak bébé ni muy toll ak ni muy tuutee nan la mën a jinne mën a duggee ci moom di ci di nekk ci moom di màggaaleeg moom di ko yàq beneen bi tamit mhm. mooy dañuy gis Thierno Moule Sow en personne nii bu toogee. clinique ba di liggéey ak poids am. gis Thierno Moule bu taxawee ba affronté jinne maanaam genre da day mel ne sekki la daal poids bi ñuy gis ak beneen kanam bi ñuy gis man affaire bi daf may dépassé. c'est vrai waaw damay gis daal toujours ñaar kii boo toogee. consultation bu ñuy liggéey ak Thierno mu war a jàkkaarloo jinne poids bi. reprendre dafay sekki. sekki. ma la sekk bi. ba pare dama gis tamit Thierno mooy bëgg a laaj ndax sëriñ bi tamit est-ce que chaîne tout noir la ñu gis ay points yoo xam ne eh, parfois ma xalaat ne tamit est-ce que lemul deful armation points yi muy dóor jinne yi parfois dafa may jaaxal ñuy wàcc <laughs> mais loolu baatin la rek ngoone comme ni nga ko waxee mm-hmm. macha allah euh, jinne yi euh, boo nekkee liir jinne dugg la mm-hmm. te jinne nu muy toll ak nu muy ngànd muy dugg nu muy mel yàlla moo may jinne mm-hmm. mun na soppale ku nekk ngelaw ngelaw defe naa fu ne la xaj ngelaw fu ne la mun a nekk wala jinne day soppale ku nekk ngelaw jinne mun na soppale ku nekk benn sànkalañ jinne ak nit bokkul jinne mun na toll ni immeuble bi mun na mun na mun na toll ni immeuble bi mun na lemaat boppam def ngelaw ba dugg ci benn butéel bu ndaw yàlla moo leen may bokkuñu ak nit comprendre nga te doomu aadama jinne mën na dugg fu ne dëkk fa dund fa su génnee toll ni ko neex mais bu nekkaay bu duggee ci nit ki bu nekk li ko neex waaw nekk ci lu ko neex bu duggee nit ki day nekk lu ko neex di daw ci yaramu nit ki loolu yàlla moo ko may jinne comprendre nga hmm. loolu moo waral ba mu nekkee xale ba mu nekkee biiru yaayam laa ko dugg ba muy nàmp ba muy nàngam màgg ak moom dem ak moom ay ata at macha allah yàlla moo leen may loolu te yàlla bi neen bi def na leen ci alxuraan def na ko suratul jinne suratul rahmaan yonente ba mu ko doon jàng am na ay jinne yi ñëwoon bëgg ko bëgg ko jommil yonente bi waar leen dugal leen ci diine lislaam beneen bi tamit comme ni ngay wax su ñu nekkee ci liggéey macha allah nekk ci jinne yi mm-hmm. dañuy boobu beneen nit lañu nekkaat <laughs> maanaam saa yu ñu tàngee rek dañuy nekkaat beneen nit bu ñu nekkee nag ah, ah, normal nag dañuy nekk ak nit yi normal mais bu ñu nekkee ci combat beneen nit beneen maanaam <laughs> beneen jëmm ngay gis man sama bopp saa damay sentir ne fu mu nekk nii dama am doole jinne yi ñooy waaw waaw maanaam macha non baatin bi la boobu damay nekkaat beneen nit mhm. bu ma nekkee ci komba wala nekk ci feu ci guerre wala yooyu beneen nit laay nekkaat du ma nekk na Moule bu simple mais nag bu ma nekkee ci kër gi nekk nii si jàmm ak yooyu mun naa nekk na Thierno la Simple ci famille bi waaye bu tàngee beneen nit laay nekk man sama bopp ci saa si damay yëg ne ne macha allah beneen nit moo taxaw. loolu nag baatin la d'accord loolu baatin la. macha allah loolu dëgg la macha allah. waaw euh, jërëjëf sëriñ bi man euh, dama lay interpeller waat. que souvent da koy wax di ko mitidlu di ko di ko di ko maanaam neexu la. waaw foog ñu métti lu ko nit ñi. Hmm. buñ ñëwee nga faj leen ba pare ñu dem dootoo leen gisaat nga ne dañu manque de reconnaissance mais sëriñ bi est-ce que yow tamit jotul nag aussi nga jël sa ay disposition ba nga xam ne tamit boo ñëwee faj nit ba mu delluwaat nga fexe déjà am nga adresse am am nga numéro téléphone nga dem au moins di gëstu nit ki def euh, reportage ba mu wóor ko ne ba mu wóor ne ñi ñee par exemple kii ñëwoon faju si même bu dellusiwaatul dafa wér delluwaat na ci ay sagoom tamit est-ce que loolu tamit jaru nga tëral un programme bu mel noonu. parce ñu lu mel noonu pour dem bi ji loon soloon. xam nga macha allah man waruma topp si ginnaaw nit yi. boo ba nga jaaxle da ngaa daw ñëw. ñu dimbali la bu sa affaire baaxee. dangaa war a gorewaat. waaw comme que ñëw sëñ bi duñ dem rek xool ba xam ndax nit ki ah, tane na xamante ne mun nañ leen topp mais am na ñi ne du ñu leen topp dañuy toog ah dañuy bëri munoo topp ñëpp mais nit ki bu gore am foo jaar war nga mën a fàttaliku fi ma jaar kat macha allah euh, ba yàlla dimbali ma nga war a dem ne ko vraiment maa ngi ci jàmm remercier ko ak yooyu am na ñu gore am na nag ñu gorewul am na ñoo xamante ne dañu gore macha allah am na nag ñu gorewul macha allah mais yooyu ñoo ngi ci tànk yi defe naa ne du yàgg fan yi di ngeen def ay déplacement très bien dem ngeen fi Gambie gis nga ko macha allah di ngeen def ay déplacement waaw mais pour xamal nit ñi rek ñun ñu ñu faj man li ma faj ci ay doomu aadama bare na man li ma faj man bu ma fajul ay vingt vingt millions personnes <laughs> wala trente millions bari na de ba ma dalee faj ba tey dëgg man faj naa ay nit de li ma faj ëpp na Sénégal ah dëgg la de waaw man li ma faj ëpp na Sénégal man ay milliards de personnes laa faj parce que am na ñi nga xamante ne ñoo ngi utiliser ñetti Thierno Moule Sow di wër ñoo ngi utiliser ñetti Thierno Moule Sow yi juróom-ñaari Thierno Moule soixante-dix yi ñi nga xamante ne leen gis ñoo ngi am wér li nekk ci ñoom mu ngi ak ñi seetaan vidéo yi man doyen ñi ma faj xaw ma lu mu toll. parfois nit day ñi faj te gisoo leen. ñoo ëpp ñi ma faj te gis naa leen. <laughs> ñoo ëpp <laughs> ma ne ko loolu moom. émission li ci jinne mooy diffuser ñi nga xam ne gorewuñu. waaw ko. Mm-hmm. léegi sax ñetti yaa ngi ñenn ñaa ngi sax bu ñu defee ñetti cer mu gis résultat dañ may woo ne ma sëriñ bi mankat kat macha allah maa ngi utiliser sa tur su ma la woowul gorewu ma ak nangam gars yi envoyé audio fan yi am na audio yi bëri yi ma yor xam naa dinaa ko yónnee waa TMS ñu monté ko ay nit la nga xamante ne ñenn ñi xaw ma leen sax mais loolu dafa baax nit ki bul utiliser ci turam mm-hmm. bul utiliser ci turam di gis njëriñ te waxoo ko ko. loolu moom du continuer boo utiliser ngay gis njëriñ da ngay woote wax sinon ah. après boo continuer du dox parce que yooyu yëpp damay bloqué affaire yi ah. pour muy leer <laughs> waa beneen question bi mooy Thierno Moule en tant que yow nit dund ak jinne waaw ah. ngay dund ak ay jinne que loolu yomb na waaw macha allah euh, soxna Ngoone Dia euh, ay jinne yomb na yombul parce que tëbuma rek di dund ak ñoom nee naa la dama waroon ay jinne ba tas dem naa Mali Guinée Burkina Togo Bénin Nigéria dem naa dëkk yi bari gine Guinée Mauritanie amul dëkk bu ma demul ngir wëri xam-xam mhm. ndekete am na lu yàlla def ci man mhm. wirdu naa turu yàlla bu ne wirdu naa ko mhm. turu yàlla bu ne boo xalaat ci turu yàlla yi wirdu naa ko woor naa di wirdu di woor ci ay turu yàlla def naa ko di wirdu di woor ay turu jinne def naa ko di ut ay jinne fu ne laa dem amul lu ma deful wax naa ko waxti ko yenn ñëpp xam ngeen mm-hmm. macha allah ndekete am na lu yàlla def ci man mm-hmm. yàlla nag loolu ba mu ñoree nag macha allahu euh, jinne ci lañ ma uyusi nee naa la jinne tëbuma ko gis dama daan tëdd di def nii di gis ndànk ndànk di gént noonu noonu macha allah ndànk ndànk ba nga ñeme affaire yi parce que dafa nekk li nga xamante ne lu garaaw la boo ko tëbee rek gis ko te daawoo ko gis wala daawoo ko xelmateeg yooyu mun na la indil problème parce que fii am na li nga xamante ne day day dagg nit boo tiitee rek dafa am luy dem mm-hmm. ak fii bu demee mun na la dofloo léegi nag ndànk ndànk ndànk ndànk ngay gis affaire yi bu demee nag ba nga jàkkaarloog moom na ba gis ko rek dootoo tiitati noonu noonu man tamit noonu laa formé woon ndànk ndànk ba yàlla dimbali ma nag deux mille 2017 nag ma commencé wàccee jinne yi di leen daana di jàkkaarloog ñoom parce que daan naa leen gis ci gént ndànk-ndànk noonu ndànk-ndànk noonu ba mu ma leen gisatee léegi du ma du ma maanaam du ma tiit yooyu parce que tamit lu même boo amee xam boo am boo musul gis jinne boo ko gisee da ngay tiit mm-hmm. da lay tiital am na borom xam-xam yu bëri mm-hmm. même bu ñu géntee jinne sax dañuy tiit noonu ba yàlla def na macha allah après dund ak ñoom dootul jafeeti quoi parce que day fekk léegi miin nga leen. miin loo xaw a loo miin rek après du du compliqué ak yow day bokk ci sa vie quoi. Mm-hmm. comprendre nga loolu kese la. ndànk ndànk rek tëbuma rek gis ko. Mm-hmm. dama ko daan gént di ko gis ci gént ndànk ndànk noonu. di nelaw di di nelaw di xippi di gis ay affaire ndànk-ndànk mm-hmm. noonu noonu ba yàlla def la nag léegi nga leen di gis jaxaraan après du compliqué loolu nekk ak ñoom di leen diriger daal. ah waaw xam nga tamit yàlla bu la yenee dara. dëgg la daf lay daf lay oyofal yéen bi. Mm-hmm. loolu kese la. dëgg la dëgg la waaw man euh, sëriñ bi li ma bëggoon euh, ñëw ci question mooy que jinne yi yàgg nga koo wax ñun ak ñoom ñoo dëkk. Euh, ñu bëri xeet lool benn ci xeetu jinne yi di ay jalan jalan yi xanaa ñoom nekkuñu ak nit ñi parce que gis nañ ne xeetu jinne bu nekk macha allah jàpp nga ko fi waaye jalan moom. su ma euh, toppee daal ci li ma seetlu benn yoon rek doo ko fi ma sa jàpp. waaw donc jalan yi xanaa ñoom nekkuñu ak nit ñi. wala ñoom daal ñu ngi ci benn jàpp naa ci presque ay ñetti yoon. Mm-hmm. jalan du benn yoon jàpp naa ci unité 19. ak euh, fii euh, fii Cambérène du benn yoon ay ñetti yoon ay jalan parce que boo déggee jalan. jalan euh, euh, macha allah xeetu jinne yi nga xamante ne dañu soxor ay jinne yi nga xamante ne ay ay shayatin lañu dañuy bëgg dundee deret bëgg dundee lu bon njaaloo wala lu bon maanaam bëgg dend deretu nit parce que bu njëkk suma yoro kante jalang la yoroon maanaam dafa yoroon jalang jalang yi nag dafa daan xëcc nit tëral ko rendi xam nga jamono yooyu ak léegi bokkul fii ku rey ni dañ lay tëj Euh, loolu lu bon la sama hmm. maam nag euh, kii sama maam euh, Sunjata Kayta hmm. moo xeex moom duma ko daan ko macha allah moo daaneel suma yoro Kanté le roi di Soso ay jalang yi bon la yoroon jalan yi doomu aadama la leen daan jox ñu la daan nàmpatalee jalangaa ñu waaye ku ko daaneel mooy Sunjata Kayta hmm. moom moo ko terrassé macha allah ah le roi di Mandi moo ko terrassé xam nga moom moo terrasse. man jinne jalan yi man dama leen jàpp tuubal leen. Hmm. dama leen di jàpp tuubal leen dugal leen ci lislaam hmm. aaye loon leen dretu nit aaye loon leen euh, yu bon yeeg yooyu fétiche yi ngay dégg yëpp xeetu jalan la. Hmm. ay fétiche ak yooyu. bëri na ay jinne jalan yi ma jàpp yi nga xamante ni dama leen tuubal dugal leen ci lislaam vraiment ñu génn ci xeet googu nekk ci lislaam bëri na jinne yi man jinne yi ma tuubal xaw ma ñaata la ay milliards de jinne ma tuubal. ay milliards de jinne yi nga xamante Touba defe naa ne li ma jàpp ci ay jinne yonte yàlla Souleymane yonte yàlla Souleymane sax yoroo ko woon ci ay jinne ndax jamono yi la jinne yi gën a bari ka bu njëkk léegi la nit ñi gën a bari ndax léegi la lépp gën a bari li ma yor ci ay jinne dafa bari ñii ay jalang lañu ñii ay jinne yi nga xamante ne ay ay ay maanaam deretu nit la xam ñii njaaloo lañu xam ñii lu bon ñii ay jullit lañu waaye ay kàccoor lañu xeet yooyu yëpp laa dajale tuubal leen Euh, macha allah def leen ñuy jullit. jalan yi nag moo gën a bon ndax lu bon rek lañu xam rey nit mu gaaw. éliminer nit accident nit dofloo nit. yàq nit. yooyu maanaam xeetu jala yooyu la. macha allah yooyu la yooyu rek lañu mën. pour lor nit rek. waaye yooyu yëpp nag fexe naa ba tuubal leen dugal leen ci lislaam waaw macha allah. Euh, sëriñ bi man question bi may posé damay dugg ci vie privée jinne yi. Euh, wax nga ko léegi nee nga dangay jàpp jinne yi di leen tuubal dugal leen ci diine lislaam ñu lay liggéeyal nekk sa ay taalibe ah waaw waaw. Euh, waaw sëriñ bu fekkee ne parce que léegi nee nga am na jinne yoo xam ne dañuy maanaam mooy yàlla mooy rek la ñuy def waaw léegi boo leen tuubalee ñu nekk sa ay taalibe di liggéeyal est-ce que ñoom tamit duñ dem ba war a toll nag aussi ñu jëlantee ay soxna maanaam ci kaw ñu ñu ñu sëy est-ce que loolu tamit mënta nekk. ah mais chaque jour ma mayante jinne ñu mayante parfois da ngay jàpp jinne mu ne la dama bëgg nga may ma soxna dama bëgg nga may ma jëkkër defe naa am na yi ngeen di dégg sax am na yi ngeen di dégg sax am na tamit yi nga xamante ne yooyu ci maa ñoom la rek mhm. ma def ay sëy xam nga du lu ne ngay expliquer parce que nit ñi du ñu gis yenn yi mhm. yow yaa koy def sa néeg rek jël sa guro def yi ngay def ah d'accord xam nga du ñu ne ngay expliquer tamit ah, très bien mais lu ñuy filmer ak li ñuy ah, gis loolu rek ngay mën a wax <laughs> mais mariage daal kenn du ko fësal ah, waaw ngénte jinne def naa ko fi def naa ko fi waaw ngénte jinne euh, euh, kii euh, naka la jinne boobu ma sangamaar mooy Jean mu tuubal ko mhm. tudd mu ne ma naa ko tudde sama bopp ma defal ko ngénte xam nga yooyu yëpp nit ñi xamuñu ko ma ñëwal ko jasineer ñëwal ko ay yéreg yëpp mhm. utal ko arme yëpp jox ko mais xam nga nit ñi xamuñu yooyu yu benn boo koy def ñii ñi dañuy ree dañuy yaakaar affaire de comédie la te fekk ne ñoom xamuñu loo xamul nag da ngay maandu nga noppi kii yàlla moo ko jox xam-xam jox ko baatin muy jokkaarloo ay jinne yi comprendre nga macha allah doon seen taalibe man yoruma ay xàmb yoruma ay tuur man yoruma jalam man ay jinne yi nga xamante ne ñoom laa tuubal leen ci lislaam comprendre ga jinne yi nekkoon ci lu bon ñooñ laa jàpp tuubal leen duggal leen ci yoonu siraatal mustaqim defe naa ne ñooñu boo leen tuubalee dañuy nekk ñi ñu baax dañu nekk ay jinne yu baax comprendre nga waaw ay jullit la ñuy doon léegi nag nekk kër ga nekk direction bi fii seen naanukaay la seen lekkukaay la loolu maanaam foofu la xam nga boo yore ay xar da koy da koy wutal ay paan wala ay siwo fi ngay defee ay rakkal ay ripaas ak yooyu fee direction bi tamit loolu la ñoom boo leen bëggee defal ay lekk du ñu ay nit foofu nga leen di defaral ñi war a lekk banaana ñoo jël banaana ñi war a lekk yàpp ñu lekk yàpp xar yàpp nag ñi war a naan deret aussi ñi daan naan deretu nit nga éliminer leen deretu nit ñu naan euh, deretu xar wala deretu nag ah mhm. ku doon naan deretu nit mhm. boo ko bàyyiloo deretu nit muy naan deretu xar wala nag wala béy loolu kay wàcce na mhm. parce que nag damay faj aussi mënul ñàkk nag mu am ay ñurgu ñarga yooyu waaye loolu nekkul leneen loolu loolu du dara loolu nekkul lu bon duñ fa def sàngara duñ fa def lu bon parce que loolu amul foofu jaamu yàlla julli ak woor bokkul nag ñi nga gis ñeneen ñuy def ay kurtu karta di def ay sàngara lii ak loolu bokkul di def ay nen maanaam daal li ko jëlee ci nag ci nen ba ci nag maanaam sarax yi mu fay def yëpp fruits café banaana pomme orange tandarma yooyu noonu yi ay jullit lañu ñoom ñoo koy kii. waaye waaye sëriñ bi euh, yenn saa nga gis benn jinne bu def benn demande bu particulière ku mel ni Zamziza moom nee na pizza la bëgg. ak ah. ay hamburger. <laughs> Mhm. nañ ko fa tegal rek. waaw da koy xool léegi man man dama bëgg a xam. jinne yi ni ngi leen di jàppee macha allah ni ñuy bëree ku ci nekk ak particularité am est-ce que yenn saay doo am ñoo ci fàtte même même ñi ngay liggéeyloo da ngay gis yenn saay ginne ne ne man danga ma fiy teg damay bañ nga fàtte ma. Mm. léegi est-ce que yenn du arrivé tamit nga teg fi jinne fàtte ko liggéey loolu bëri na kay bëri na kay waaye léegi su ma nee jinne mule mule <laughs> mënu ma wax ñëpp seen tur nag mënul nekk bu ma nee mule mule yi jinne yi jóg leen ñii dem leen def li ñii dem leen def li ñii dem leen def li ñi mag ñi rek laay wax seen tur ñeneen ñi du ma mën a wax seen tur yëpp parce que mm-hmm. mënuma loolu lu toll ni cent euh, cent cent personnes sax munoo wax seen a asantuma ay milliards ay eh? milliards wax seen tur nag jàpp ñoom ñëpp waaye parfois mhm. Mhm. jinne bëgg ma liggéeyloo ko ci saa si mu informé ma sama xel mu informé ma turam rek ma ma ma tudd ko ne demal defal ma lii mhm. loolu tamit day am parfois day jinne da bëgg liggéey liggéeyal la dara comme euh, Zamziza mu wax sëriñ bi man Zams dama la bëgg a liggéeyal nga ne ko ay waaw jógal demal nangam nangam noonu. <laughs> woo ma ñëw waaw loolu day am. waaw. ay nag mënu ma tudd yëpp nag. dëgg la mënu dañuy dañuy bari macha allah bu ma nee mule mule ana jinne mule mule yi. Mm-hmm. jóg leen ñëpp dañuy taxaw. mais parfois nag sëñ bi damay dégg pareen saa yi nga naan ana jinne yu gën a soxor yi parce que bi ma. yaay day am lu soxor waaw sonale sonale ana borom bu biir rouge yi. waaw waaw waaw ñooñu dañuy sori yooyu ma daanu. gëlëm mm-hmm. instant yi mu mel ne dañ ma doon bës ci kii bi. boobu maire bi commencé na di résister ba nangootul nag ma commencé di nekk. Hmm. mais bi nga ne ana borom bu biir rouge yi man sama samay bët moo fulu. ba lim doon def ma ko yëg sama yaram bi nga naan ko dressé leen ko. Mm. bës leen ko maas leen ko courant ma mel ne kuy dugg ci karo yi mais ci saa sama bët yi dafa fuloo di ne borom bu biir rouge yi may xalaat ne est jinne yi tamit dafa am ñu ëppante pouvoir ñu gën a soxla waaw waaw borom bu biir rouge yi ay sadik lañ am na ay borom bu buy rouge <laughs> waaw am na ay borom bu buy ñuul mhm. am na ay borom bu buy weex yu weex tàlli waaw am na ay xam nga jinne dañu ëppante ay doole nag ay gratte waaw waaw dañu ëppante ay doole waaw mhm. xam nga yonte yàlla Souleymane yàlla daf ñu tracé lépp mhm. yonte yàlla Souleymane dafa yoroon ay jinne di leen liggéeyloo maanaam di leen tarbiyuloo loolu la yàlla indiwaat fii ci mu Moule so mhm. yàlla dafa ne woon lu mu jox yonte yàlla Muhammad salaa salaam du ko jox kenn waaye lu mu jox keneen mun na ko jox lu mu jox sëriñ yii mun nañu ko jox mhm. Cheikh Ahmed Tidiane suñu sëriñ loolu la wax mhm. yàlla lu mu jox yonente bi munu ko jox kenn waaye lu ma jox man Cheikh Ahmed Tidiane sërif man Cheikh Ahmed Tidiane yàlla mun na jox taalibe bu góor góorgóorlu liggéey suñu borom yàlla mun na ko jox loolu waaw la rek yàlla mooy maye man damaa dawoon ay jinne di ko ut yaakaaruma woon jinne dañu may uyu si ndekete yàlla am na lu mu def ci man macha allah defe naa ne quatre vingt pour quatre vingt dix pour cent gëmuñu woon léegi macha allah defe naa ne ñi gëmatul léegi xam naa cinq pour cent. amatul te amatul nit yëpp gëm nañ léegi. parce que ma saa su ne maa ngi wane. gëm xanaa bañ a nangu mayum yàlla la rek. waaw mayum yàlla la xalaatuma ko woon. waaye ndekete am na lu nekkoon ci man li nga xamante ne moo ngi doon nelaw macha allah. dëgg la dëgg la jërëjëf kon nag euh, technicien mu may def signe ne temps bi daanaka jeex na on a même pas senti le temps rapidement rek ma bàyyi ku nekk une dernière question avant que ñu jox sëriñ mu di gërëm di sant di gërëm di sant rek. di gërëm di sant di ñaanal encore une fois bi loolu rek lañ ko mënal ñaanal ko yàlla na la fi yàlla bàyyi dundal wéral amal jàmm ndax sa dund ak sa wér ak sa jàmm ñun mooy sunu njëriñ Seydou Sow mm-hmm. ñoo lay euh, féddaliwaat sunu taalibeeg sunu kóllëre vraiment di la remercier lu bëree bëree bëri jërëjëf jërëjëf ajarat ngoone looy tàggu waaw macha allah damay tàggoo tamit ak benn question def ko tàggoo bi du tàggoo rek macha allah la di wax tamit jinne yi jinne musulman ak jinne sayaatin nii lan mooy seen différence mm. parce que nga gis jinne musulman yi parfois dañuy topp nit yi mm. di ko yàq wala ñu ne dugg naa ko dama koy jàppale mm. da ngay gis tamit seytaane yi dugg ne dama koo bëgg pour man nit boo ko bëggee da ko war a defaral lu tax jinne di bëgg nit ba pare naan di ko yàqal waaw xam nga jinne en général doomu aadama xamul boppam waaye mm. doomu aadama yàlla daf ko teral mm-hmm. yàlla daf ko jox lu mu joxul jinne sax mm-hmm. waaye doomu aadama bu xam boppam ndax jinne yi ñun dañ leen di jëriñ bu baax jinne yi doomu aadama daf leen di dimbali bu baax a baax mm. waaye na xam nga nit nit xamul boppam moo ñu moo mm-hmm. loolu mooy suñu problème parce que jinne day bénéficier wu ci doomu aadama parce que jinne bu la duggee nga am wërsëg jinne macha allah day dundee ci sa wërsëg am na jinne yi nga xamante ne ay miskin lañu amuñu dara ay walaakaana lañu maanaam bu ñu leen saraxul du ñu lekk dañuy dugg nit ku mel ni ngoone ñu xam ne ko am wërsëg la ñu dugg ko dund ci wërsëgam wala ñu jël fanam yokk seen fan macha allah yooyu yëpp gis nañ ko wala jël xam yokk seeni xam-xam. macha allah léegi nag loolu moo waral jinne shayaatin yi dañuy profité yu bari def ko ci nit ñi am na tamit ay jinne yi nga xam ne ay jullit lañu waaye ay naafeq lañu xam nga naafeq moom du dugg aljanna da ngay nekk jullit ba pare di ruubee kooku tamit jullitam ab des na. waaw parce que boo nekkee jullit nekk jinne bu baax. waroo lor kenn waaye boo loree nit rek naafeq nga. moo tax bu ma la jàppee dama lay tuubal. dugal la ci yoonu siraata parce que xam naa ne jullit nga waaye naa fekk nga génn nga ci lislaam loolu moo tax macha allah mais jinne dëgg am na jinne yi nga xamante ni duñu dugg nit duñu lijjanti doomu aadama bu leen nit jegee sax dañ lay moytu waaw am na jinne yi am valeur am classe xam seen bopp xam li leen yàlla defal duñu tooñ nit lijjantiwuñu nit waaye nag am na jinne yi nga xamante ne dañuy dëkk ci tooñ nit ñi am na nit ñi nga xamante ne aussi dañu dëkk di tooñ jinne yi di liggéeyloo jinne yi di dem liggéeyal ma kii mu dof kii am na wërsëg téeleel ma wërsëgam yàqal ma ko nangam nangam man mi ñaata sëriñ ñoo ma xeex ñaata nit ñoo ma liggéey mhm. suul ay xaj ay nagak ay nangam nangam def lu ne waaye mënuñ ci man dara ndax nag yàlla moo ma defar moo a préparé mhm, kon nag sant suñu borom rek nag macha allah noonu la demee ngoone macha allah boo amee wërsëg rek mhm. mun nañ dund sa wërsëg waaw kon nag di wax alhamdulilahi rabbil alamina yal na yàlla yokk fan yi yokkal nañu ñëpp fan yi ñod di fanu Thierno Moulé Sow mhm. le xalif général le roi de Guinée prince yàlla def bark ci moom bàyyi ko ak la ren notre ren notre ren vraiment di gërëm bu baax sécurité bi macha allah di gërëm bu bare bare kara ak son équipe di di gërëm tam Alseyni Yaatma ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu nekkal fi tam aussi euh, wàccew ñu benn yoon seen loxo yi waaw di sant ngoone lu bare bare bare guerrière la wax dëgg yàlla ngoone mhm. waaw di la di la sant lu bare bare euh, di di gërëm tam aussi doyen macha allah disponible euh, notre journaliste ndooya mmh, mm, di la sant lu bare bare wax dëgg yàlla yal ñu yàlla bàyyindoo lool lool lu yàgg lool lool yàlla defar mbir yi tàppe xol yi boole ñu nekk benn yal na ko yàlla def ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi sallam parce que Thierno Moule Sow le roi loolu la mérité. Mhm. ñu nekk benn na ñu nekk benn. Mhm. pour relever un défi de la TMS TV Thierno Moule Sow attention yal na yàlla def loolu xol yi nekk benn ñuy yëgoo di déggoo di wecceer xalaat di échanger pour TMS TV. Cerno Moule Sow le roi des jinne ci barke Seydina Mouhamad Rasulullah salaam salaam mm-hmm. mm-hmm. yow moomu jaamu yàlla bi loolu nga mérité. Mm-hmm. macha allah merci jërëjëf euh, Mama Bella sëriñ bi lan ngay tàggatoo message bi à l'endroit de ñu la doon seetaan ci émission bu mag bii li ci jinne waa li may tàggatoo doyen euh, di sant yàlla bu baax ndeysaan di julli ci yonente bi salaa salaam di kontaan di jéggalu aussi ci kàddu yi bu rafetee suñu borom la su dëngee ci ñun la. waaye bu ñuy wax dañuy wax ci xam-xam dañuy wax ci li ñuy xam wax ci suñu borom lum ñu defal émission bi nag émission bu mag la euh, macha allah mooy li ci jinne émission la bi nga xamante ne dafa am importance xam la bi nga xamante ne dañ taataane dañ koy sotti yulli ko doomu aadama yi di ci jëriñu ñoo ngi kontaan bu baax a baax suñu gan bi soxna ummi euh, soxna ummi ndooy euh, macha allah nekk journaliste bu mag vraiment macha allah defe naa ne fan yi dangeen ko gis ci TMS. Mhm. comme ni ñu ko waxee woon rek macha allah ñoo ngi koy intégré nañ ko ci TMS. ak mama Bella aussi nekk vraiment macha allah nekk nit ku baax nekk référence. ci wàllu théâtre formé ay xale. vraiment di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér. ak euh, macha allah sécurité bi Abdoulahat di suñu xarit ndeysaan fu mu dem rek ànd ak mama Bella macha allah. Mhm. di nuyu aussi soxna Ngone Dia vraiment macha allah di la nuyu doyen. di nuyu équipe bi yëpp ñu fi nekk ñëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax yàlla yàlla def jàmm euh, anniversaire nag madame Sow la onze septembre la waaye dañ koy aj euh, ba le 23 23 mooy anniversaire lu prince ñu boole ñaari anniversaire yi mm-hmm. actuellement nag gaa yaa ngi préparé ay cadeau mm-hmm. cadeau yi am na yu jóge am na Fabakary suñu taalibe bi waaw am ay bagages yu bëri yu mu indi ay colis xam naa bientôt léegi après ñu xool ko mm-hmm. kon nag anniversaire Euh, dañu koy boole ak anniversaire le prince ñu def ko le 23 septembre ñoo ngi koy préparé bu baax a baax taalibe yaa ngi koy préparé defe naa ne président Alseyni si la mule ak ñoom Ngoné taalibe yi <laughs> association yi ñoo koy préparé ak association internationale ñoom Ousmane ñoom Fabakary ñoom euh, tonton Sow ñoom Gallo mm. ñoom Fama Sow gars yi ñoo ngi préparé man nit maa ngi préparé ajaratu Mariama ma ngi préparé ngi nag prince mule macha allah bu xewlee moom ñoo ngi koy préparé macha allah yàlla yàlla def jàmm doyen ñoo ngi kontaan bu baax. Euh, sant rek nag lépp suñu borom la ñun nag dañu fi nekk di jàngale. ci lu ñu yàlla jox. ñu muy xam-xam bi. muy baatin bi ñu ci jàppale jaam yi macha allah kon nag kontaan nañ bu baax di nuyu suñu doom bee Mouhamed ndeysaan nekk bu baax. nekk taalibe ci kër gi kon nag macha allah di nuyu ñëpp. di nuyu chef de secrétariat ma mule di nuyu sama champion yi toog nii macha allah le grand lutteur euh, Serigne ak Amadou macha allah di nuyu Kara di nuyu euh, Pape ak euh, Ali di nuyu ñëpp yàlla na yàlla def jàmm ci barke yonent bi salaa salaam. donc téléspectateurs yi ñu doon seetaan tey loolu la ñu indi woon ci maanaam émission bu mag bi nga xam ne vous êtes nombreux quand di ko seetaan muy li ci jinne ndax ay révélation ay témoignages amu dara loo xam ne rek émission bi dina ko bàyyi parce que émission bi moom c'est exclusivement vraiment réservé euh, à l'œuvre gigantesque du marabout El Hadj Thierno Moulay Sow vous avez tout à l'heure aussi ngeen dégg mu def tamit une révélation maanaam sur un événement boo xam ne dina am quand même euh, ci biir famille bi ci njabootam gi muy l'anniversaire day may wax ne napp ñaar date boo xam ne daf ko résumer à une seule date le 11 et le 23 le donc mu tombé anniversaire u la dame le aussi tamit anniversaire am nekk le 11 léegi nee na yëpp daf koy boole nag def ko benn anniversaire en tout cas ñu ngi ñaan yàlla vraiment ñu préparer ko ak jàmm àgg ci ak jàmm parce que ce sera un grand événement la princesse la première dame mais aussi le prince héritier moom tamit ñu koy defal anniversaire c'est sur cette note que nous vous donnons rendez-vous chers amis téléspectateurs je remercie en tout cas la présence et la participation remarquable de Maman Bella aussi de ma consoeur euh, Oumindoy mais aussi aussi Ngoné e et nous vous donnons rendez-vous euh, la prochaine fois merci et bonne fin de soirée